l'enrevage ñu ngi koy définir comme euh, étant l'état juridique et social d'une personne bi nga xam ne dafa perdre euh, époux am wala épouse parce que tamit on parle de veuf donc si noonu comme euh, dafa am terme juridique dama invité ki nga xamante ne moom mooy Aïda Ndiaye moom nag juriste la mu nuyu ko dalal la Aïda Aïda ñun moom miim nañ la suñu plateau. encore une fois bienvenue. <laughs> merci beaucoup. merci mu nekk li nga xamante ne moom mooy thème bi damay commencer ci li nga xam ne lan mooy d'abord veuvage maanaam lan mooy tenj foofu laa bëgg ñu ubbee li nga xam ne moom mooy euh, euh, euh, lii di sujet du jour bi yaay tey boo may tënkal tenj mooy lan. jigéen boo xam ne dafa ñàkk jëkkëram ba pare amul amaatul beneen jëkkër. loolu mooy la veuve. tant amaatoo beneen jëkkër tant que amaatoo veuve. exact une fois que nag man nga génn nga foofu. tu es tu deviens madame X tu n'es plus veuve. ñun hmm. ki noonu ci critères yooyu la ñuy ciblé suñuy suñuy suñuy membres. ok seulement le veuvage au Sénégal dafa mel ni comme une fatalité. Hmm. ñun dañuy daw amul Jean amul Paul amul Mamadou amul Doudou dañuy daw le pourquoi parce que xëy na fekk nañ ñun suñu jëkkër yi gaañu on est tout proche parce que bu ñu sañoon tey suñu jëkkër yi bu doon raam sax mu nekk ak moom na yàlla moom lu ko neex lay def mm-hmm. te ñun dañu dañu suñu xol ngëm-ngëm lañ dañu ànd dañu ànd ak ngëm-ngëm mhm. ndax yàlla bu soxlaa rek jaam ñi mhm. ci biir noonu ñuy vivre loo xam ne c'est inhumain au Sénégal nous sommes des êtres humains et nous ne pas des hommes nous des femmes mhm. bunt bu ñu laal mu tëju ici au Sénégal dama ne la l'association nationale regroupe presque toutes les quatorze régions du Sénégal il y a les veuves euh, de la douane yu ci bokk il y a les veuves de la gendarmerie yu ci bokk il y les veuves ay militaires invalides yu ci bokk il y a euh, yoo xam ne dañuy dañuy liggéey dans l'informel <laughs> moom na nekk veuve rek kon nga xam ne ñun vraiment pourquoi kenn ñu euh, kenn considère nañu comme des êtres humains lii moom moo ñu c'est notre cri de cœur yàgg na amul benn porte Je le dis haut et fort et je l'avais au président Macky Sall les yeux dans les yeux. Il a aucune institution au Sénégal bu ñu mos a ubbil buntam particulièrement suñu ministère de tutelle ñu mosuñu xam suñu ministère mosuñu xam aucun ministre de euh, euh, de la femme et de l'enfant mu ubbil buntam ñu tàllal ko loxo mos a am. et pourtant nous sommes des citoyens. du ñu duñu du ñu duñu ivoirienne duñu congolaise nous sommes des sénégalaises. Mm-hmm. elles sont la couche la plus vulnérable au Sénégal. absolument. dafa sa jëkkër gaañoo rek macha allah coono dikk ki nga naan ànd dañ forcé wu ngeen ñaan wax gisutoo rek euh, euh, kër euh, kër gi basculé. man ni ñu war a jàpp lañu mais cependant fii au Sénégal favoritisme daf fee bari pourquoi ñuy daw. su jëkkër gaañoo commencé ak sa propre famille lay boobu ñuy teg mhm. c'est pourquoi lu teg xaalis de booy xaalis lu koy joxe du loxo boo ko koy jox ñu defee nañ koy wàll moo tax ñuy teg layu boobu qu'est-ce que xam ne déjà déjà foofu marginalisation dugg na maanaam mhm. yow sa sa borom kër jour bi muy gaañu rek étiqueté nañ la yow. ma ne nous sommes la couche la plus marginalisée au Sénégal. en Afrique en général. Ah, en Afrique en Afrique xam ne xam nañ seen ah, parce que c' en Afrique. le le qui nous a euh, moom moo ñu promené suñu journée internationale de la jeunesse ba ñun ñu sommes à notre douzième édition. d' mais mais je veux dire ñoom foofu nekk fa euh, moo moo moo gën euh, a. waaw je veux mm-hmm. jigéen ci boppam dafa soxn sonn ci société africaine. Mm-hmm. parce que lu ci mel ni Congo sa jëkkër su deewee am na ñoo xam ne doo sangu pendant 24 heures. doo lekk doo naan fii amoon na Sénégal. fii amoon na ba mm. doo sangu. waaw am nañu suuf yoo xam ne yow doo ko sa doo sangu doo fireeku ay yax lañ lay tegal ay ay paaka ngay àndal ba mujj gi da ngay am ay ay parasites ci sa yaram am na fi ñun ñoo ko bannir. ñun ñii ñoo ko banee mhm. parce que am na loo xam ne tamit dafa rafetul jigéen nga bañ a sangu benn fa benn jour ñaari jour ba ñetti ñaari ay mercredi comme ci nga war a fóota ci nga war a set ci nga doo firee ko affaire yu mel noonu takkal la ay yoo xam ne moom mais ba yàggee ah mais c'est impensable ça. Mhm. lu métti la mu nekk situation yu métti yoo xamante ne jigéen mu ngi koy dund ci mhm. Sénégal ah, mhm. wala si Afrique en mhm. général parce que lu ci mel ni ay ay Togo isolement am ñoo xam ne emprisonnement lu ñuy dund foofu noonu Inde moom il paraît que am na gox yoo xamante ne dañ lay lakkaale ak sa jëkkër donc jigéen oustaz est-ce que loolu la la yàlla loolu la yàlla santaane ci jigéen oustaz dafa mel ni concentré wul <laughs> ma ne jigéen est-ce que tey l'islam loolu la santaane ci pratique yi nga xam ne ñun suñu culture mu ñu koy imposer ci wàllu pénc alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim soxna maam kumba ak mbokk yi ñuy seetaan yépp diine yàlla dobal na prévoir na lépp ci jigéen ji nekk ci buum ak jigéen joo xam ni daal génne ci buum lépp loo xam ni teg nañ ko jigéen ci pénc nit ñi muy dundandool amaana ñoo ko ko teg mais am na nu ko charia jàngale ci bi muy nekk ci biir sëy ba bi mu génnee ci biir sëy comme ni ko suñu yaay waxee léegi xam nga léeg-léeg ñu jaawale diine ak aada. ci suñu réew mi. balaa ñuy sori nag ci waxtaan bi dinaa leeral ni dañ fee taxaw ngir taxawaayu diine. absolument. wax li alquran jàngale jaare ko ci njàngaleem yonent yàlla Muhammad foofu li nga ma bëgg nga dégg ko fa mooy. Mhm. nga am ne waxul yàlla amul seeka exécuté rek moo ci am dana la leer it ni waxu yonent yàlla muhammad mi yàlla doon wax loo amul seeka ndax yàlla wax na ba noppi ki mu doon wax loo wax na ba noppi kon wax jeex na waxin rek moo des ndax jigéen am nañu droit imposé ko ci société bi ci lan lañ ko war a imposé moom jigéen ak ci yan lañ ko war a imposer moom jigéen loolu faaw nga xam ko sharia bu fekkee ne ni ñu wax ni mu jàngalee ñaar ñuy dencante ba taqali koo am seen diggante ñu ngi koy jëfe ci société bi li suñu yaay di jàmbat loolu kenn du ko dégg ci société bi maanaam taqalikoo ci anamu nga tey sa borom kër génn àdduna mhm. boobu moo ñu intéressé tey xam nga charian mhm. dafa tëral nii jigéen ak góor bu ñu dee ànd bu tàqali amee te mu amee ci sababu dee. exactement. am na lu fa war a am lu ñuy lu ñuy tuddee ndono muy don. mais balaa ñoo yegg ci ndono bi. oustaz. Mm. Mm. dama ne Sénégal wala mm. Afrique suñu su sa borom kër génne àdduna. culture dafay tax tey jigéen ñi ñu am nañu leen traité te loolu finalement maltraitance leen diru mm-hmm. maanaam. Euh, sa borom kër génn àdduna un ñii duñu sangu mm-hmm. wala ñu tànn la jour yoo war a sangu mm-hmm. ñu isolé la mm-hmm. tegal la ay layu tey pour nga li nga war a lekk sax wala li nga war a sol sax dañ koy xoolaat munoo génn yenn heure yi loolu culture la wala l'islam moo ko maa ngi ñëw loolu la charia di wax tixdaad mm. muy tënj waaw loolu charia tënj mais nag am na yenn yu mu tudd léegi loolu bokkul ci li charia jàngale mm-hmm. ndax ab dafa am yu daggan ci jëmmam mm-hmm. ak yu xaram ci jëmmam te wax na léegi ci biir waxam mu ni nga toll ci circonstance boobu ñu lay takkaloo yenn yi mm-hmm. bokk na ci ay béjjën ay yax ay nangam loolu aada la loolu du diine boo gisee man lay tay sama wax ni mm. diine laa fi toogee damay wax li diine jàngale ñun loolu lañ bëgg tey léegi après yow mi may déglu soo daan jëfandikoo loo xam ne déggoo ko ci wax ji da ngay xam ne loolu sariya jàngale ko. dëgg la. loolu moo tax ma lay taaye noonu wax ji mais maa ngi nit ci li ko doon mhm. mooy ni jigéen bu borom këram génnee àdduna dafay def lu ñuy wax téññ. waaw kooku alquran la. moo ko santaane. alquran moo jàngale ne jigéen dafay téññ téññ nag ci olof buñ ko firiwaatee mooy ñaawlu. Mm. maanaam lépp luy wane ni. mbégte yi àdduna la dañu bëgg nga sori ko ngir lan xaw a naqa mu xaw a nuru naqarlu parce que doo ko tuddee naqarlu parce que ki ki moom moo jël li mu moom ki mu moom mooy jaam bi mu bind kon boo ci naqarloo dafa mel ni yàlla dafa dogal accepté woo li mu li mu dogal dëgg man ak yéen ñoo ci bokk yem demal maa ngi ñëw rek la dëgg la kenn ku nekk armel boo mës a boo fa amul maam am nga fa yaay am nga fa bàjjan am nga fa kon xamal ni lu mu yàgg-yàgg day ñëw mais charia dafa ni loolu bu amee ñu ni waaw mu ne na nga def lu ñuy tuddee tëñ ji loolu nag mooy naqar la maanaam wane ni ki nga ñàkk am lu fu mu toll woon ci yow ñaata weer nga koy def mu ne ñeenti weer ak fukki fan nga koy def quatre mois dix mhm. mois dix jours bu dee bu dee bu dee gor la bi jaam di am bi jaam di am mm. ndax charia lépp da ko prévoir bi jaam di am mu ni kon jàpp bi deux mois deux mois cinq jours la ko def. na moo taxoon indi différence boobu. am na différence parce que jàpp ak sang bokkuñu. Hmm. ci lu bari ci wàllu charia ni muy attee. Hmm, hmm, ndax bokk na ci sabab bi kii su ma ko tënkee mooy kii dafa moom boppam kii dañ koo tënk. dëgg la xam nga kii ñu tënk souvent mënuñu koo teg yenn yenn pression yi. absolument bu ma la koy misaal pour nga dégg li ma bëgg wax mi naan liggéey ci kër. ak doomu borom kër bi muy liggéey ñoom ñaar. maa yi du ouvert ci biir kër gi ñoom ñaar bokkuñu. dëgg la kii dañ koo tënk te kii kenn tënkuñu ko kooku mooy diggante jàmm ak góor. d'accord looloo tax tax charia ci misaal su ma la ko dee misaal ci kër gi mooy jàmm bi moom ngay nural ak mbindam bii liggéey ci kër gi am na loo xam ne sañu ko ci kër gi. dëgg la am na ci loo xam ne moom ak waa kër gi yëpp ko bokk bokk yam doom bi ci kër gi mën naa wane amul sens interdit ci kër gi. absolument loolaa waral charia. Mhm. ki tënku ak ki ko bi mu ko defee nag ba pare yonent bi dafa ñëw jàngale ni ñu koy defee. Mhm. bi mu ne xam nga 4 mois 10 jours duñ la ko tënk ci benn place am yoo xam ne dañ la koy tere te nga war a bokk ñu ñu société bi. Mhm. loolu dafa metti quand même. terewuñ la génn génn mais ak génnam. Mhm. li ñu bëgg ci charia mooy nga tëju tëju mooy toog benn barab loolu. day wane ni buñ la gisul ci mbedd yow ba tey li nga li li nga ñàkk am na nu mu toll ci yow mais su fekkee yi yow da nga ñàkk borom kër exemple te bu ñu wootee xew nga dem ak bu mu mën a doon ci xew yi kooku yàq yàq yàqu ñàkkul dara yéene dëgg la comment sëriñ loolu la def mu ne xeetu taar yi nga doon def na ko wàññi waxul nga bàyyi ko <laughs> dafa ne na ko wàññi sañse bu metti beex ay maki maquillage yeex xeet yooyu daal. daal attiré góor mu ñëw ci yow. ok dañ koy tere. am na ko waral parce que jamono boobu góor amul droit la ci doxaan ci waxuma la ak ko takk moo tax góor bu la ci doxaanoon takk boo sëy bi baaxul ndax da ngaa toll ci iddaw ndax idda maanaam <laughs> loolu dinañ ci ñëw léegi léegi. <laughs> loolu dañ ciy ñëw léegi yaay waaw. Mhm. boo yàkkamtiwul lépp looy leer loo bëgg mu leer dana la. ah kay continuer non non dafay wax day dëggal say wax day dëggal say wax rek. da lay renforcer waaw. Mhm, mhm. dafay dafay dellusiwaat ci idda. ndax dafa am idda koo xam ne dañ koo fasay. exactement am idda boo xam ne euh, ci tënj lay am ci idda boo xam ne ci deret lay amee ñetti idda yi bokk na. jigéen nga xam ne day iddaw amul droit góor di ko la. sariya da koy tere nee na même su fekkoon ne da ngay da ngay da ñëw bëgg a wax ak moom pour mu bàyyi la xel. Mm. soo waxee wax joo xam ni ku ko dégg xam ne yow. doxandaw suñu dugub sariya da koy yàq. Mm. dafa am ay ay ay genre parole yu sariya wax ni moom la bëgg nga koy utiliser yu mel noonu yu mel ne nga naan man day sama grand boobu bii bëggoon naa fu ma koy wékk. ah benn la rek sama maraakis si bëgg naa buntu néeg bi ma koy ubbi. loolu olof la. loolu rafetal la rek rafetal la rek. rafetal mais doxaan la tamit hmm. boo xam ne day tekki bu génnee ci idda ji nga ko sëy mais soo ne ko simmi naa fi sama maraakis. wala su naa fi sama sabadoor. loolu kay mooy soo paree dama lay takk. saaba tuuti saaba tuuti. Hmm. ay olof fi nekk. waaw moo tax ñu koy rafetal. man ñuy toog ak olof laa. comme ni ngeen nekkee oyof. waaw mm-hmm. li may wax waxuma bambara waxuma joolaa. ak ñoom la dégg dañ la dégg sax dafa ni. waaw day bañ nga wax wax ju leer. Mm. waaye am na ci wax yoo xam ne ku dégg xam wax ju lu muy dégg. exactement mooy dafa bëgg nga waree ni yaa ngi bàyyi xel ndaw si. d'accord ngir bu demee ba génn ci li mu nekk. d'accord. comprendre dégg bokk la nga ñëw ne ko dama laa bëgg a denc. Mm. ok. ñaari wax yooyu bokkul. d'accord. ngeen jàpp seen i mbir sëy bi jeex ngeen ngeen takk ko loolu dafa xaram ci sharia. dëgg ñu ni ko wàññil taar bi nga doon taar taw. comprendre nga bi jamonoy baax ci lu ñu toll woon mu bokkoon ci liy taaral jigéen à part sañse fu dën ak tusngal la woon. absolument léegi remplacé nañ ko ay. ay ñoom crayon waa xeet yooyu maanaam li xew ci jamono. waaw ndax jamono bu nekk ak liy xew. exact mais yooyu xew ci jamono yow mi toll ñàkk borom kër dañu la nga wàññi. sa génn bu mënta ñàkk ba mënta ñàkk boo koy def def ko guddi comprendre mais doo fóot jour tàngam jour sangam ngay fóot loolu aada ma leer mhm. da ngay takk nangam jamono booy tënk loolu aada la du layu yi tamit aada mhm. utal la waxtu yooyu génn ak yooyu dul génn loolu aada ak sangu bi xeet loolu loolu aada da ngay sangu heure sangam heure sang doo ko sangu da ngay naaw heure sang da sangu guddi doo sangu bëccëg loolu aada la. double souffrance maanaam plusieurs souffrances ngay dund en tant que jigéen. su sa borom kon di nga dégg ni li ma dégg léegi mu wax ko moom. waaw mu tàmbalee. da ngay dégg ni loolu diina xamul. te diina lu mu reconnaître ci ab jullit. ab jullit war a ko def. d' accord jërëjëf teg tegal foofu sa loxo ñu ñëw continuer alors yaay awa dégg nga un peu li ñu wax. suñ société dafay imposé jigéen bi nga xamante ne jëkkëram dafa dafa dafa génn àdduna ay mbir yu metti lan moo tax lool ban jàngat nga ci am yow en tant que sociologue. alors euh, merci d' abord si euh, question bi. Mm-hmm. avant maa ñëw ci loolu dama bëgg a revenir tuuti ci yaay booy li mu doon wax sànq. waaw parce que société bi boo tolloo ci tey ji waaw yooyu ñu lay imposé yooyu. dafa nekk loo xamante ne on peut les appeler des facteurs coercitifs. waaw en sociologie mm. c'est-à-dire ay euh, ay loo xamante ne société bi daf la kay imposer des contraintes mm-hmm. Mm-hmm. léegi gis nga loolu yëpp dafay wane ne société bi ni mu injuste envers ces veuves là exact mm-hmm. exactement léegi nag injustice boobu noonu ñuy dund dafay tënku ci li nga xamante ne si moom la ñuy woo woowee les facteurs coercitifs bi euh, sociologue bi ñu naan Émile Durkheim noonu la ko définir waaw exactement. <laughs> léegi est-ce euh, pour revenir euh, ci situation. boobu euh, mën nañ ni veuve bi nga xamante ni déjà yaay booy sànq wax na lu am solo. <laughs> Mhm. mooy veuve. Mhm. mooy ki nga xamante ni ñàkk na borom këram elle ne s'est pas léegi société bi ñi muy gisee femme bi nga xamante ni si. benn yoon la ko situation boobu dal mënul bokk ak ni muy gisee ki nga xam jaan na ci ñaar ba ñetti yoon ou plus ah foofu la gën voilà parce que boo xoolee exactement ci laa ñu léegi boo xoolee femme bi nga xamante ne si loolu benn yoon la ko dal mhm. mën nañu société bi mën na ko bañ a marginaliser comme ni muy euh, comme ni muy comporté woo ak keneen ki mhm. mën na dawal tuuti compassion mais par par contre ci ay jëfam mhm. bu commencé def yenn agissement yi rek da koy commencé condamné daal comme par exemple boo commencé di duggaat ci mbiru àdduna yi lay jugé naan lan yow moom xanaa affaire bi sapu la wala yow sa deewu jëkkër bi moom mm. sapu la genre yooyu yàkkamti woon nga ko voilà déjà loolu rek étiquette la boo xamante ni si mm. société bi mu ngi koy koleel femme bi nga xamante ni moo ñàkk boroom këram mm-hmm. dafay am ay souci de réinsertion sociale mm. exactement mhm. léegi nag par contre bu fekkente ni ki nga xam loolu dal na ko ñaar ba ñetti yoon mhm. dafay gën a yomb pour ñu coller ko ay étiquette mhm. euh, comme lu ci waral ay dafa ay gaaf porte la poisse yenn saay sax ngeen baal ma ci kàddu yi du ñu dem ba di ko tam naatkaan tu es une mangeuse d'âme yooyu yëpp dafa nekk lo exactement dafa nekk loo xamante ni si société bi ñu ngi koy teg femmes yi nga xamante ni moom la woowee les veuves au Sénégal. Mhm. mu nekk loo xamante ni si ñoom daf leen di jural ay euh, complications dafay atteindre seen santé mentale. et tout psychologiquement dañu dootuñu amati stabilité. Mhm. exactement. Mhm. dootuñu amati stabilité dafay dem ba sax ñoom des fois dañuy dañuy développer benn euh, comportement boo xam avant meluñu woon noonu mën na leen jural par exemple. ñuy ñuy beru seen côté mu nekk femme yoo xamante ni si dañuy difficile à comprendre mm-hmm. te loolu yëpp société bi moo koy waral mm-hmm. moo def ci ñoom li nga xamante ni si genre benn carapace la bu ñuy bu ñuy adopté juste pour protéger ci société bi li mu leen di fi mu leen di dëkkale mm-hmm. exactement voilà Aïda jigéen sonn na Aïda balaa may ñëw ci juridique en tant que femme li nga fi dégg yëpp waaw en tant que femme moom def constat bi rek ci domaine boo mënti laal. Mhm. jigéen dafay dundu coono dafay dund vulnérabilité ndax xëñ na suñ boroom moo ñu ko mooñaale ba tax na mu ñuy dénk ay nit mu ñuy denc. Mhm. Euh, bu ñu xoolee société bi tey bu ñu gisee ku boroom këram dëddu comme ni ñu ko waxee sànq day am benn ber buñ lay def ci ki nga xam ne amaana ñàkk na boroom këram benn yoon. Mhm. pire nag ci ki nga xam ne dund na ko ñaar wala ñetti yoon mm-hmm. kooku noonu booy seet tey dafay dund difficulté yu bëri mu nekk social ba pare nekk économique mm-hmm. maanaam da dund benn pression ak gisin boo xamante ne nii société bi ñu la koy teg bët bu ñu lay xoolee mm-hmm. wëlbatiku it dolliku ci situation Euh, difficile yi ngay dund économiquement. exactement ndax tey bu dee sa borom kër moo nekkoon ki daan wuute di indi ci mm-hmm. kër gi. Mm-hmm. yow nga sàlloo woon toog yax njaboot gi. Mm-hmm. suñu borom nag dogal li ko neex ndax di ko oustaz waxee sànq. jombul kenn. dëgg la mu namm ko ci jaamam dogal ko. yow xëy na nga toll ci trente cinq ans trente ans. tollogoo fooy ñàkkee lenn li. dëgg la tollogoo it fooy dëddoo sa àdduna. dëgg la yàlla nattoo la benn nga ñàkk sa borom kër muy mettit ñaar muy fitna jafe-jafe àdduna yi nga war a dund ak sa njaboot. nga war dundal say doom. nga war a uuf say doom yéex leen. yar leen dundal leen. te comme ni ko sama yaay waxee sànq am na ci ñu bëri mën nañ laa dëj lool nag. waaye buñ ca noppee dañ lay woon ginnaaw. dëgg la nga daal di des ak sa njaboot nag. boo dee as góor nga. mu xaw a mit ci lool. yenn saa yi nga gis koo xam ne dina lem mbubbam sax jaay. ngir dundal njabootam ak ngir bëgg leen yar ci ngor. kon dafa am ñaari pression yoo xam ne veuve yi ñu ngi koy dund ci biir Sénégal mm-hmm. su ma waxee sama xalaat rek en tant que jigéen en tant que doomu aadama muy une pression sociale bu métti ci gisin ak xoolin yenn saa yi nit takk diw ñaari at ñett mu génn àdduna yenn saa yi du mat at mu génn àdduna ñu am bët buñ ko xoolee euh, gis nga ci ci ci ndaw rawatina yenn saa yi nit takk tey dee ci boutique yi mu ngi noonu yàlla moo ñëw mu ngi noonu am la xoolee mm-hmm. yenn saa ngeen jur benn doom mu ndaw toll ci naam mbaa ci dox nga war a boole sa doom màgg du gis baayam mm-hmm. benn xamul baayam mm-hmm. booleeg pression bi la société bi di teg ñetteel bi nga war a dundal njaboot gi mm-hmm. ndax lépp cher new cher lépp cher dund gi cher dëkkalin bi cher amaana nga sëyi foo xam ne sax bo ñooñu boo téngee ba noppi ñu delloo la say mbokk te mm. amaana boo demee sa kër doo fa xaj dëgg la kon jigéen boobu vulnérabilité woom day gën a feeñ bu dee koo xam ne amaana amul weeruwaay mm-hmm. mën na ko dugal ci ay jëfin yoo xam ne lislaam wala diine wala société bi du ko nangu muy ci yenn comportement yi wala mu ànd ak ñu mu waxta àndal mbaa ma dugg ci lu mu waxta dugg mm-hmm. donc nekk na ñoo xamante ni yaakaar naa muy famille bi nga xam ne fa la doon sëy mm. muy famille bi mu bàyyeekoo bañ koy maye muy gox ba mu dëkk muy état muy société wala ONG organisation yi nga xam ne ñu ngi jàppale jigéen wax nañ leen gën a gunge waaw ndax mën na nekk une voie de débauche te loolu kenn ñaanu ko yàlla dëgg la mën na nekk une voie de débauche ay dal yi nga wax am solo lool waaye dama bëgg a poser benn question oustaz góor ndax dafay tenj góor xam nga soxna maam hmm. li soxna si wax léegi dangay dégg ni pénc bi bari na ko ciy denc soxna te li la war ci soxna xam nga. loolu moom dañ koy dund. tous les moom loolu rek la xam. xam nga ci fànn yu bari nag. Hmm. waaw. xam nga charia waxuma sax balaa may wax wàllu dee. Hmm. jigéen sax boo ko boo ko boo ko fasee. ci jamono bi muy dund. Hmm. bi ngay dund. waaw mu di ko dund nga fase ko. gëm ni yàlla moo jeexal sa digg diggante moom dafa am loola ci sariya teg. Hmm. soxna si si bëgg nga def lu ñuy wax yóbbal. loolu mooy lan. walil mutallaqaati mataaman bil ma'ruufi haqqan alal muttaqiin la alquran jigéen boo ko fasee te lu mel nii rek la sariya di daal moo tax man la lépp. borom a na. borom nañ ko dañ ko toppul rek. mu ni jigéen boo ko fasee. Mhm. wax waxuma waxi dee kooku beneen kaa la. waaw boo ko fasee mu génn ci sa kër war a jëm ci seeni kër. Mhm. ak nu leen mën boole. danga war a yëkkati som bu dëgër teg ko ci loxo. loolu lañ naan ndàmpaay. am ngeen doom. loolu amu leen doom. loi bi da koo da koo da ko sax tëgg moom tamit xam nga. Mhm. su waxee wàllu social. su fekkoon ni charia nii mu wax ñu ngi koy def billaahi jigéen du génn ci sëy dootoo soxla ko la dimbal waaw ndax di nga am fond sax loo mën a defaree. foofu laay waxee. maanaam liñ la jox bu fekkee ni brave la dana am loo ci man ba ba ba yow mën ngaa bokk sax léegi nag su fekkee ni loolu amul dañ laa bàyyi nga dem kon xam nga yow yàlla boole na laa koo xam ni benn ñaar a koy waral xëy na ko mënul. wala mu am ko te yéenewul parce que penc mi moom léeg-léeg ku ku ku la ci ku la ci ku la ci bi daf lay jàppee am noonu. dëgg la looloo waral yiy xew léegi ci penc mi ci ñaar ñoo xam ne am na lu ñu seqoon te loola nekkoon loo xam ne sutura la woon yàlla boole leen te góor ak jigéen ku ne xam ne seen ànd sutura la après ñu xawee ko ci digg penc mi parce que dañoo defante ay noon seen diggante. Mm-hmm. léegi su fekkee ni yàlla dogal na dee moo leen taqatle. mais oustaz balaa ngay dugg foofu li ngay wax dafa am solo. loolu am na Mauritanie am na marché bu ñu tuddee marché di divorcé. Mhm. jigéen ñi nga xam ne dañoo divorcé. Mhm. lépp li nga xamante ne yow yaa ko moomoon ci biir néegu sëy bi da koy yóbbu ci marché ba. Mhm. mu nekk sa fond de commerce. ñu ngay jaay am fi sa source de revenu di dund tranquillement sans comme li nga wax léegi nga bañ a am benn souci ci li nga xam ne moom moom na war a nekk sa dundin après divorce boobu mais ñun Sénégal di ndeysaan yoo nga dem tribunal yéeg wàcc mm-hmm. liñ lay jox du ko jar sax na mm-hmm. donc da ngay tayal sax dem tribunal mm-hmm. pour am compassion n'est-ce pas n'est-ce pas nest loolu am na jëriñ voilà exactement xam nga soxna maam léeg-léeg jigéen dina dugal ci boppam loo xam ne sabab moo ko ci dugal c'est-à-dire am na ci façon góor yoo xam ne benn jabar waruñu koo am waaw ñu ñoqale ci ñaar ba ñetti jabar ah, waaw waaw ma ni lu leer laay wax dama ne am na ci góor boo xam ne benn waru ko. moom benn jabar sax waru. Mm-hmm. mu ñoqali ba ci ñetti jabar ku mënta gérer benn jabar kooku takk ñetti jabar waru ko. daganul ci yow. kon bokk na ci liy tax jigéen ci bu génnee bu génnee ci sëy bi nekk ci ay jafe-jafe. Mm. yow bi nga koy bi nga bi muy nekk ci say loxo. Mm. li mu li war sa diggante ak moom mënoo kon bu génnee doo ko mën. dëgg la c'est loolu benn la. Hmm. te loolu léeg-léeg jigéen moo ci dugal boppam. parce que charia dafa wax maanaam gis nga yi ñuy waxtaane yëpp dafa am base. waaw dafa bëgg balaa ñuy dugg ci sëy dafa am lu jiitu. loo am ne jigéen daf cee war a sonn góor ci daf cee war a sonn am façon qualité jigéen bu ñu lay takkaloo yow góor yow jigéen ñu am façon góor bu ñu la tànn loo mais fii boo tànnee ñu ne la. intérêt nga jiital. mais nag gis nga gis nga. <laughs> jigéen sonn na yàlla. pourtant loolu moo war a nekk da nga war a am koo xam ne war na la mun a yoox. Hmm. war na mun a yiir. Hmm. dëkkal la dëkkoo la. loolu la hmm. yàlla sant. d' accord waaw. Ah. charia ni mu jàngalee ni jigéen dafa war a toog góor def ay yitte ba fekk fi mu toog denc ko noonu la charia jàngalee ni jigéen yitte bu góor def benn war na def fukkam pour xam ban góor la ko yàlla war a exact xam nga dañuy jigéen ci ñeent lañ koy denc ci ñeenti mbir wala nga ne ñeenti jikko benn jigéen dina am alal nga takk ko. Hmm, boobu ci la bokk de le contraire. bari na feneen. ma ne. loolu la kenn takk sariya dafa dina am alal waxi bakkan. wallay diina la. waaw. dama ne jigéen yooyu si charte yi la bokk. dina am alal yeneen bi mooy wax de waxuma de. tunkihu al mar'a li arba. kon kon jamono yi góor yi wax dama takk cas social. mais am nañ raison. les veuves sont des cas sociaux. nous sommes considérés comme des cas sociaux. oui mais Oustaz il faut nga daanu ñu gën ñëw ci waxu veuve. parce que loolu mooy waaw day ñëw il faut xam nga ne xam nga ne question balaa nga koy aborder il faut nga ubbi. après ñëw ci point bi. loolu Oustaz di def meññet kenn mënu ko góob te bayoo te jiwoo. dëgg la demal Oustaz. balaa ngay wax wax yi. ku ñàkk jëkkër nañu def ba takk sëy bi li ñuy waxtaane ba pare. waaw. tabax boo ñëwee teg ci kaw te defoo fondation day daal. waaw dañu bëgg ñu jànge ci. temps bi ñi duggagul ci sëy ak ñi nekk ci sëy ak ñi génn ci sëy balaa ñuy duggatu sëy ñu xam na la ñuy duggee ci sëy. Ah. ndax bés bés sa jëkkër tëddoo nga xaw a am. parce que problème yi yëpp ngay dégg. yaa tudd divorce ñàkk xam nu ñuy duggee ci sëy moo ko waral. yaa tudd divorce. ak après boo duggee ci sëy nooy gérer sëy bi. Mm-hmm. ak après booy génn ci sëy. Mm-hmm. loolu. mënuñoo ñëw rek di wax ni tool bi dañ ko war a góob. Mhm. dañ koo war a récolter te waxuñu nan lañ def ba tool bi ñor ñu war koo récolter. ok dafa ne ñeent la ñuy takk jigéen. Mhm. mooy jigéen dana am alal xam nga ko fii nii damay dama nekk ci jigéen ni góor di sonne pour am jëkk jabar ju baax noonu nu ko raw la jigéen war a sonne pour am jëkkër bu baax. déglu leen oustaz déglu leen oustaz waaw. dégg nga li ma wax. Mhm, maa la góor. bu sonnee ci biir gis jigéen bu am alal mu takk ko da ngay jël contraire bi. kon jigéen tamit am na droit xool. ku yor mu takk ko. vraiment su ma tuddee góor rek jëlal contraire bi jëmee ko ci jigéen. Ah. jël position bi ma tegoon góor nga yóbbu fa jigéen. dëgg dina am alal pour ñu takk kon hmm. da ngay ni jigéen dina dugg ci góor ngir alal ji mu yor. dëgg la. Hmm. araamu. jigéen dinañ ko takk ngir jikko. Hmm. jikko. yeneen bi nag nee na booy takk. takkal borom jikko. Mm-hmm. c'est important. yow jigéen bu la borom jikko takkee. nga dugg ci góor ki ngir jikko. Mm-hmm. lii di xew ci penc bi ay tant penc. dëgg la dëgg la oustaz. yaa ngi am na solo. Mm-hmm. moo tax yeneen bi ne fas var man maa ngi lay dégg nga takk borom jikko ndax jigéen ñi lu ñu bari bari ñett lañu. mu ne jigéen dinañ ko takk ngir taar bi mu yor. te xam ngeen ni taaru jigéen yàggul. dëgg la. góor yi dinañ dugg ci moom ngir faa ko ngir taar bi néew. dëgg la am na ci jigéen ñoo xam ne daaray góor ñëru leen. na na mën a sañse. na ay barbe yu wàcc. na jantal na nangam. <laughs> loolu musiba naaru la <laughs> ah. tax ba may <laughs> noonu la amee ci góor ñëpp. Uh-huh. am xam ne dañuy xemmeem jigéen. dëgg la dëgg la ngir taar bi mu am. Uh-huh. sarmant na mën naa ànd ak moom ci ay jotaay looloo tax ñu denc ko. dëgg muy ñett xanaa. mais yëpp xaraamul daal. xam nga ko ñetteel. Mm. jigéen dina am askan. dana bokk ci askan boo xam ni. bu doon sunu Sénégal ma ni sant si ba Mbàkke ba Laay ba Taal. ba Ba waaw ñas sant yooyu ñoo gën a moom la gën a ràññ ci réew nit dina bokk ci loolu nga denc ko. Mm-hmm. yeneen bi nag nee bu fekkee ni da tànn borom diine. ëllëg bu ñu eggee ci circonstance boo xam ni tas dafa war a am dana ci am koo xam dana am lu mu jomba def dëgg ndax góor dina am lu mu la rusee ba am na ci loo xam ni du mën a nekk seen diggante yéen ñaar waaye su fekkee taar bi la woon taar bi bu fi nekkatul benn dalay cokkaas mm. yàlla mu nekk boroom alal te góor bu amee taar am alal malaaka la ndigal a ñëwgul ku mu raygul yàlla ñëw <laughs> loolu dëgg la <laughs> maa la ko wax. maa ko wax loolu dëgg la da mhm. lay cokkaas. bu la cokkaasee xam nga cokkaas bi lan la. Hmm. da ngay sëy sëyoo mawti sa morom indi. moo tax souvent sëy ak borom alal moo gën a métti ci penc bi dëgg la. respecté wuñu jigéen. ah de am na ñu respecté jigéen bàyyi loolu. Ah, ci dëkk bi la ñu nekk. ñenn ñi am na ñu si respecté jigéen quand même je dis des fois waaye. bari na lu fiy xew fekke nañ ko. Hmm. li ñu bii ci wàllu sëy xëy di ko waxtaane du jeex. dëgg la ñu yàlla dénk teraanga yaruñu leen amuñu jikko ju baax mën ñoo tee jigéen te bis bu nekkee ñoom ngay dégg ñooy def mariage. ñenn ñi stage bul général ñenn ñi moo tax ma ne ñenn ñi déggoo dama ne ñi alal amuñu jikko mooy yaruñu leen dëgg la mariage royal yi ñoo ko fiy def nga dem ba dégg ñu généraliser ni ñi nga xam ni yàlla dégg dénk na leen ay boroomi tur lañu nangootuñu toog ci sëy yi ñu ngi sëy sax du gën ko dégg. dëgg la lu ko waral alal ji moo tax. moo tax sariya yi balaa ñuy ñëw ci waxtaanu ki ñàkk ki ñàkk borom këram. métti mhm. di mu dund nañu départ nañu nañu arrière tuuti dellu ci ci sànni. comment kon bu ñu jaaroon fii jaar fi yonent di jàngale sallallahu alayhi wa sallam amaana bu ñu ñëwee ba tàqalikoo am ndax ñaar rek am. yàlla nee na ànd ci njekk wala tàqalikoo ci njëkk tàqalikoo ci njëkk nag mooy waral góor bàyyi la jàppale jigéenu boppam ba tey xam ne yàlla moo leen boole woon waaye yàlla moo a diggante yi kooku dana rafetal seen diggante yi après boo ci génnee am ngeen doom amu leen doom mbir mi dana xëy di gën a rafet ba jànk tu tumuranke ak métti yi ngay jànkoonteel ci penc mi dootoo dootoo mhm. man ko man dëgg la léegi nag loolu ci jamonoy dund la avant ñuy waaw léegi nag non balaa donn bi sax nag. Mhm. ñu ñëw ci jigéen ñi. nga xam ne seeni borom kër dafa dëddu après ma dem ci tataa mu defal ma partage d'expérience tuuti. Mm. man ak maanaam. maanaam. maanaam nga dugg xam nga yaa ngi base su sëy. avant ñuy dugg ci li xamante ne moom mooy euh, jigéen bi doon sëy ak borom këram ba borom këram dëdd ko. coono yi muy dund. Mhm. ndax loolu lislaam. na nga waaw. wax naa léegi nii lépp la ko waaw. xam nga sama yaay damay ba damay bañ ñu jàppee débat bi nga ñëw di défendre benn cause. ba il est pour défendre sa ah, loolu moo ma tax a jóg de. waaw xam nga xam nga loolu moo ma tax a xam nga parce que on a d'énormes ma tax a jóg. d'accord nous sommes pas nous sommes ni des divorcés. ni ay célibataires nous sommes des veuves. d'accord on a des problèmes yoo xam dañ ko war a dañ a génn suñu xol yëpp danañ koy teg léegi ci table bi c'est ça le problème danañ ko fiy teg léegi bàyyi oustaz yëngal tuuti rek waaw oustaz xam nga boo gisee ma wax loolu hmm. mooy su fekkee day défendre cause hmm. day dem ba li ko charia séddoon muy diine da koy fàtte ah gis nga génn ci sëy tumuranke taxul charia teg la yenn yi wala mu digal la yenn yi ba nga ciy dugg. mais charia santaanewul marginalisation bi ñuy dugg. <laughs> baax na daal wax bi de mooy loolu. d'accord mm-hmm. mais ci ban ban méthode lañ koy defee loolu moo dara laaj. waaw parce que li mu la digalul dara mooy boo génnee ci sëy nga sàmm charia li mu la digal sëy boo ci génnee nga sàmm góorgóorlu ba beneen góor fekkaat la fi amul leneen. waaw bañul nga liggéey liggéey bi. da ci indi ay charte parce que jigéen charia da ko kafewul mm-hmm. comme ñoom ni ñu ko ñàkkee xam ci pénc mi ba ci bi nga amee jëkkër bi nga ñàkkee jëkkër même su fekkee da ngay liggéey bi nga génnee ci sëy mm-hmm. charia dafa am lu mu lay tere dëgg la am na ay grand place yoo xam ay tukki yoo xam ne doo fa dem de ànd ak jàmm yooyu yëpp charia da la koy tere te jigéen da koy def mm-hmm. comprendre moo tax jigéen li mu li ko li ko sariya sant du dara. mooy bu génnee ci sëy na toog xaar beneen góor bu baax bu ko yàlla booleel. Mhm. loolu kese la moom du leneen. Mhm. comprendre dëgg la bu fekkee am nay doom li waroon doom yi ci njëkkëram moo koy war ba keroog beneen góor di ñëw. loolu kese du leneen. Mhm. amul leneen loo xam ne charia bi ko jigéen bi génnee ci. d' accord alors euh, yaay damay ñëw tuuti ak yow ci partage d' expérience ñàkk nga période boobu euh, la plupart des veuves une fois que sa jëkkër gaañu rek mooy li ma wax sa vie yëpp basculé la mooy li ma wax li ngeen daan partagé wu yéen ñaar ngeen tëdd di ëppatu ko di ko daj affaire yu mel noonu ngeen di waxtaan affaire mm-hmm. nga toog un beau jour kooku ñu ne mu dem mm-hmm. danañu am problème am danañu am benn chagrin bu nekk suñu xol mm-hmm. danañ am traumatisme psychologique yàlla moom boo amee góor goo xam ne yërmande ci moom macha allah. man sama jëkkër moo naan tuddi ñëpp muy dégg. naan nelaw ba ay huit moom mooy jóg san salam xale yi sang xale yi yóbbu école ñu soo ko defar mbéy mi. soo ko defar mbéy mi. dama koy tooñ man mii. am wóor ma dama koy tooñ. xam nga maa war a baalu àq. Mm. mais day ñëw baalu ma ak yeneen ak yeneen yoo xam ne vraiment ay mbokk mu may dégg. te lan laay waxee. bu mu jógee dañuy fa dafa ragal sa jabar bi mais du woon loolu. amoon nañu benn amul boo xam ne vraiment mënuñu ko mënuñu ko woon a mënuñu ko woon dissocier. dissocier. kooku boo ko ñàkkee nooy defati. da ngay wéet. da wéet. mais nag wéet gi xëj na ci moom lay moo fa nekkatul. Mm. mais y a ñu ne dañu wàkkiru ci yàlla suñu mbir yëpp ci yàlla lañ ko teg parce que nag attention association li muy rëy rëy yëpp am nañu ay yaa Seyda yoo xam ne ñooy wàcc alxuraan te am nañu ay oustaz ku ci mel ne oustaz euh, Alioune Mbaye bu Sud FM daf ñuy defar ay ay kii dañuy vivre ci charia dañuy vivre ci leneen parce association bi du ay sëriñ rek ci nekk ma y a des chrétiens aussi absolument xam nañu yàlla wax xam nañu yonente ba wax bu ñu waree julli dañuy julli bu ñu waree eh, wér dañuy wér mais nag am na loo xam ne tamit nag vraiment suñu suñu suñu am propre la. Mm-hmm. su sa jëkkër gaañoo. même suba teel gi ngay dangaa am na heure yooyu kii am na xam nga fajar gi war a dem eh, doxantu ji. waaw mais gën sa buntu kër. ñu ci di yeewu. gën sa buntu kër. Mm-hmm. mbokk ka nga bokkal ndey ak baay mbaa keneen ak keneen ngay jëkk dajal. ñu def na ko mu wàññeeku. Hmm? benn ngi noonu. Hmm. maanaam lay bi ñuy teg. Hmm. ñii ñëw di di jaale si benn benn fan lañu ñoo ñaari fan ñetti fan ñetti fan affaire ba jeex dootu ñëpp naan ne mu ngi koy fii deux mois fii dugg na fii génne na fii kii wu xale yi maa koy kii doo gisati kenn. yàlla nag bu sa jëkkër wàcc la nag ci précarité boo xam ne benn néeg nga am. xoolal man damay gérer des milliers de des milliers de de veuves. presque ñu nekk nañ ay soixante mille de de veuves. te chaque jour que Dieu am ñu ñëw adhéré adhéré adhéré si. chaque jour que Dieu te lépp ci yàlla lañ ko teg. du ci gouvernement. am ay ONG yoo xam ne ay bàyyi defar yàlla yoo xam ne am nañu seen seen euh, seen sensibilité ci ñun. ñu jàppale. kon loolu bu ñëwee góor bu la bàyyilee benn néeg nga am fukki doom a juróom-ñett néeg ba mu la bàyyi xañ da koy fay luyaas de da ko daan fay luyaas hmm. yow yaa yow mu ak xale leen jox añ war leen jox ndeer war leen jox ndékki wala toppatoo mais loolu loolu dëgg yàlla diisul hmm. waaye ku ci def sa loxo day yor yàlla loolu yàlla yàlla yàlla lu lay def hmm. yàlla du la tàccu mais tel n'est pas le cas au Sénégal fii au Sénégal lépp la solidarité communautaire n'existe plus. Hmm. Hmm. Hmm. alors veuvage dafa metti ci surtout côté belle famille da ngay gis koo xam ne dafa ñàkk jëkkëram jour boobu noonu day am ay règlement de compte ci bés bi nga xam ne moom la war a sim moom la war a moom lañ ko woowee firiwee pour muy tënk sociologie psychologique xam nga problème yooyu lu koy indi auparavant yow sa bu sa dooleem waaw parce que nag y a deux sortes de veuves am na veuve yoo xam ne mooy mooy suñu veuve yi ñun ñii. ñu xam ne ay walaakaana lañu amuñu dara. mais am na veuve yoo xam ne suñu jëkkër bàyyi na leen. namuñu dara bàyyi na leen namuñu dara. mais ñun booy sëy booy sëy sa loxo gàttu sa ginnaaw nga mën a teral njëkke teral boro di liggéeyante di la xarti ay waaye bi sa jëkkër deewee kay nag nga vraiment nag euh, bu ñu lay firi nag bu ñu amul tuuti kersa nag dañ daw wong sax dañ la ko def mbaa ñu jam la ràbb gi. dëgg la ce sont des situations. mais problème boobu nga nga di ko endurer. lu dëgg ñu wax ko de. dëgg nañ la baax na. dem règlement loolu dafay dafay kii soxla ci jour dëj bi. règlement de compte belle famille bi ñun ñun suñu yëpp ñun. ñun duñu nangu après le mm-hmm. après kiling kalang ak ay firi ak affaire yu yooyu. Mm-hmm. ñun suñu sacerdoce yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp. Mm-hmm. c'est l'épanouissement de nos orphelins. l'héritage. ñun suñu doom waaye maa sax wéet. xëy na suñu jëkkër demee mais waaye nañu njaboot mais ko amul njaboot nag. waaw ko amul njaboot foofu gën a méttee ngi noonu. ñun am na genn wàll gi yëpp genre boobu la. mais ñoo sax ñu ñooy nekk suñu njabootu bopp ñun. Hmm. ñun yàlla dimbali nañu ba am nañu xol boo xam ne man mii su ma soxlaa tey su ma woowee awa jàll ba a toog naka awa jàll mbub mi nga soloon tey soxnaa bu la ko woy dem jox ma ko. mantulaay yi noonu même chose mantulaay looy togg tey mu ne ma euh, ceebu yàpp ma ne ko yónnee ma ci mu yónnee nous vivons dans un élan de solidarité loolu moo ñu jàppale ak ndimbalu yàlla am ay ONG yu mel ni les racines de l'espoir Sophie Gueye Sophie Gueye kooku yàlla xale boobu yàlla ko yàlla jàppale amiin amiin Sophie barka démb rek sama doom doon na def euh, service Porokhane gis benn handicapé gis ngeen ko ci Facebook sa xale boobu di kii noonu woo ma yaay ma mën a am na ma gis naa yaay waxal Sophie Gueye de là-bas j'ai Sophie fi mu nekk nii barki démb dañ fi dem même pas un mois trois chaises roulantes lañ koy ginnaaw ñoo rox kooku ku ko ku mu ko defal ñun la ko association bi ko defal te moom ñuy moom ñuy dimbali amul amul tabaski amul leneen toujours mu joxoon nga ci. mu ne deet na waaye yàlla la solidarité active ak maam maam Diarra Ndiaye Sabel xëy xam nga ko. Mm-hmm. la solidarité active. eh waaye bu ñuy may euh, benn jën ñuy lekk nañu jàngal ni ñu nappe waaw. kooku ñun da ngay kooku jàngal nañu ne ñuy nappe ndax day jël xaalisam jox ñu ñu def fruits et légumes du yóbbu ay Diofior du yóbbu feneen ak feneen feneen Djilor ay feneen ñu dem fa mu ñuy financé ñun entre nous mais loolu ko ma waroon du état. Mm-hmm. alors dinañu. nii ñii. Mm-hmm. ñun ñii ay personne troisième âge lañu. Mm-hmm. am nañu deux xoolal. kële xam nga kële amagul amagul sa amagul nekk troisième âge de. c'est une présidente de de euh, d'une cellule. Mm-hmm. am nañu des veuves de vingt cinq ans trente ans ba quarante ans. nañu jàppale. Mm-hmm. ñun bu ñu mayul dara sax. Mm-hmm. nañu ubbi seen buntu yi ñun ñu wax leen suñu cri de cœur. mais VIP lañuy lañuy lañuy lañuy VIP. gaar si oto yor sa caabi euh, ministre ñu ne la noonu na dugg nga wax la ngay wax ñu jox la mais ñun ñii. te yàlla de yàlla am na lu mu wax nag de. ku teral veuve teral orphelin ma teral la loolu moom amul sax léegi te ñun am nañu ay parents yoo xam ne ñun ñu am na ñàkk ñu am ay parents yoo xam ne am nañ ba ba ba am jeex am nañ ba am jeex am nañu ay xame yoo xam ne am nañ ba am jeex Youssou Ndour mi moom lii man ak moom ci cappaacoli ga la ba léegi daan nga ñëw cosaan ya bi ñoo ko ñoo ñoo ko ubbi. loolu il fallait que. dégg nga yaa ngi dégg. Birane Ndour moom may premier bàjjenam na maa ko génte. dëgg la dinañ léegi loolu yëpp. Mhm. ñun ba dëgg yàlla dem mhm. ah sëñ Maxa boo ko bu jéglu tali nga wëcc ko ba banta muy kot koti mhm. mais ñun ci dëkk bi lañu bokk bourse familiale yi amuñu ko des milliers des milliers de veuves au Sénégal amuñu bourse familiale des milliers de milliers de veuves amuñu aide sociale yi ñu joxe. Mm-hmm. bu dul ay waa no Stratland waa kër euh, euh, sa Aminta Aminta Seck Gueye chaque année ñoom ñooñu man ñun yàlla yàlla ñu jàppale yaa mm-hmm. ku ñu jàppale ñu euh, yàlla jàppale ñu ko ñu yàlla jàppale ñu. Mm-hmm. ndax tamit nag ñu suñu association am ko ci amu ko ci amu ko ci ñàkk fayda de kuy def ay affaire bordel amu fa ku fa ñàkk fayda dañ lay jàpp seppi teg la fële. dañuy demal suñu bopp te yàlla te mu ñu jàppale te ONG yooyu macha allah le fonds Sénégal pour la zakat bi nekk Pikine gis ngeen fonds boobu nu nu mu rek man ku ma bindal signal la cachetel la boo demee ñu jox la ñu jox la ñu jox la doon loolu neexul ah, sant yàlla donc ñi ko xam ñi ñi xamul seen association ah, ah, baax na nañ ko xam baax na ngir ngir ngir ñoo adhéré ci yéen ngir dëgg la nag dëgg la nag métti na trop day métti métti parce que ñun kenn joxuñu subvention boo xam ne da ngay tubb joxe man chaque jour que Dieu fait nit ñëw ne ma dama usé baa sama buntu kër mu ngi génn sama bagage yi sama doom yi jàngu amoon ma ko dinaa waxante yow noo xam ne billaahi day mel ni comme un coup de foudre comme une baguette magique foo naan la kii yóbbu loolu mel ni am na ku may woo ma xool sama am na fi daal di daal la koy jox su ma ko amulee woo keneen kenn benn présidente na leen te ñu présidente yi macha allah. fii ba Casamance Casamance toute Casamance ñooñu am am nañu présidente foofu Tambacounda Kébémer Kolda moom Kolda ñun da leen di war a jox mais ñoom dañuy ëmb seeni yére ay yére yu baax yi ci la bokk indi pour jox waa Sénégal booy jox waa Dakar te waa Dakar ñoo ñoo war waroon gën a def noonu dama ne la nous vivons dans un élan de solidarité ku ñu ku ñu bëgg a ku ñu bëgg a faagaaka nag yàlla ñu bàyyi la yàlla rek li ñu wax toujours rek lu lépp li ñu waayal war a war a def rek nañu neex na naqar yàlla. alors euh, alors yaa Awa oh, est-ce nañu wax ne veuve yi fii Sénégal dañu dañu dañ leen fragiliser société bi daf leen fragiliser. exactement. Mm-hmm. veuve yi soo xoolee seen dundin rek. Mm-hmm. société bi daf leen fragiliser parce que déjà ñoom seen situation rek mm-hmm. dafa métti. nga ñàkk sa sa conjoint loolu rek dafay créer benn euh, sentiment de vide boo xamante ni si mu ngi ci yow waxuma laak nag société bi di ci boole di la teg yoo xamante ni sii ay métit la yoo xamante ni mm. dafay dem ba yow ci sa bopp da ngay fragile da dem ba da ngay da ngay nekk nit koo xamante ni si da ngay yomba atteindre mm. loolu mën na affecter sa santé mentale mën na def ci yow loo xamante ni si. souvent dañuy exposer de trop. parfois elles sont victimes d'harcèlement de la part exactement mhm. exactement. Mhm. parce que daf ci am góor ñoo xamante ni lu ñëpp nag mais am na ci góor ñoo xamante ni mhm. dañuy profiter ci faiblesse bu femmes yooyu. que ce soit les femmes veuves wala les femmes divorcées pour mën leen manipuler ndax xam nañu instant boobu ñoom dañuy vulnérable dañuy neex a wala boog dañuy soxla benn. Euh, affection bu ñu amul ñoom dañ ciy jaar profiter ci di leen euh, manipuler mu nekk euh, situation yoo xamante ni mu ngi metti ci seen côté aussi mm-hmm. tamit benn côté mm-hmm. am na si góor ñoo xamante ni ci bëgg lu yomb moo leen ci dugal dëgg la dañ ndax dañuy bëgg ñëw am fu ñu noppaloo wala ñu bëgg voilà exactement mm-hmm. suñu yaay nee na les gigolos les gigolos suñu xoolee situation veuve yi yaakaar si dara. Ah. dañ ci profiter en fait pour mën a dem am fu noppaloo. Mhm. wala wàññi yenn charge yoo xamante ni ñoom la waroon. Mhm. ñu profiter ci situation boobu alors que man sama gis-gis. Mhm. veuve bi soo ko jàppalewul waroo ko yokk ma dëgg parce que déjà rek. perdre sa conjoint dafa metti mm-hmm. nga boole si sa des fois di nga gis famille yi dañuy démissionner mm-hmm. soutien bi ñu leen waroon apporter bi ñu leen ko apporter mm-hmm. déjà rek conflit bi foofu la jëkkee mën naa surtout bi surtout belle famille bi parce que imagine toi yow tey nga nekk veuve nga war a jot ci sa héritage ñoom ñu gën ko yittewoo sax que yow di dem ba ci sax dañ koy xëccoog yow ngeen nekk ci yoon di yéeg ak a wàcc loolu yëpp nekk situation yoo xamante ni veuve yi ñu ngi koy dund fii ci Sénégal mu metti trop te normalement soutien moral ak soutien financier man je trouve que ni famille bi ci ñoom la waroon njëkkee ñoom ñoo waroon njëkk a apporter seen soutien ñi nga xamante ni moom mooy veuve belle famille bi ñoom aussi waroon nañ leen gën a mën a jàppale ba ñu a jot voilà mhm. ci seen héritage bi nga xam ça leur revient de droit mhm, ñu bañ ko xëccoo ak ñoom daal mhm. exactement alors affaire héritage bi problème la mais foofu dama fay ñëw ci kanam tata dama gis euh, bi euh, yaa awa di wax par rapport ak harcèlement bi nga xamante ne boobu yi parfois dañ koy dund. Mm-hmm. ngay dëggal. nga mm-hmm. dëggal ko. bien dañ ciy gis ay situation yooyu. wala yow en tant ko mës a dund. Euh, en général. Mm. veuve yi la plupart des veuves bu leen seen jëkkër bàyyi leen tuuti te ñu fas ay animé euh, de sens de plaisir sensuel am na jigéen ñi xam ne mënuñu téye seen bopp. waaw waaw. waaw seen jëkkër même seen jëkkër bu sax dañuy dañuy def lu leen neex. waaw bu sa jëkkër gaañoo nag eh, moo moo moo. nga sa bopp nga gis un bu ñëw nee dama lay marié looy wax. dañ cee dugg. waaw am nañu ay cas yu bari chaque jour que jëfee ñu am cas yu mel noonu. <laughs> mais nga taara ma damay damay am jëkkër man ah, doy na la. gannaaw ma ko baax na en tout cas woo rek ñu ñu ñu ji. te deux un mois deux mois lañ koy teg mun de simmeeku naa ma ne ko la xew mun naa sama ndigg li day mais sama kii ma ne ko yaa yaa yaa xam parce que tamit am na góor ñoo xam dañuy profité ci li nga soof muy dëgg dañuy profité ci faiblesse u veuve bi mm-hmm. parce que veuve bi am na lu mu soxla ay problème ay rapport ga yooyu c'est problème psychologique oui boo ko defee sa xel rek mu nekk sa xel dëgg la soo ko fekkee ne euh, daje ngaa koo xam ni loolu moom moo moo ko animé néegam am na benn chambre à couche benn lal boo xam ne double lii la hmm. à côté am na salle de hmm. ca gannaaw am am gannaaw dafay kokoriko mu approché la fekk asweccet am na yàlla na yàlla boo am benn pension bu ndaw. waaw asweccet bi waaw man nga xam ne moins de dix mille francs lay am euh, par mois. ñu ah. de dix mille francs am pension. et presque par mois moins de dix mille francs xam nga ñun kat dañu wër amuñu lal amuñu duubale amuñu nen. waaw mais danañu fexe ba copparte loola. yàlla nag bu sa jëkkër am bàyyi la fi kayitu kër. danañu mhm. fexe moom waa waa ji dana ñëw de ci ci biir ci biir doxaan gi rek. xam nga jigéen moom lu ko lu ko kii dafa dafa yomb. dana la nax ba nga wan ko këyitu kër ga. Mm-hmm. mu naan ma ma defal la ko nii dugg na fii gën a ne def ci poche dana la jéem a laaj am nga pension pension nga ne waaw dana waaye gën a li sa foofu lan la kanaar la am ginaar nga ne ko moo dama yaan fa ay ginaar naa ah, kon na mu bokk ñooñu ñëw dañu lay bombardé lekk la nga am yëpp daal lay football yàlla nag boo fa am nag une une une orpheline mm-hmm. compagnie gi benn gone bu ndaw. waaw duñ duñ xaar après moom dina dina défendre góor ñi xaar. fii nga xam nga fii ngeen juddoo. fii nga yoroo. waaye masama ak ñun ñii ñu xam dañoo dox. waaw eh, quatre point quatre bi noo ba toog. dëgg la ma rek waaw bu kër ga. Mhm. am une petite benn genre xale doomu veuve bi de. Mhm. ah ba du xoolatee veuve ba de. Mhm. xale ba ndaw ba lay xool. mu ngay xool wee ne taxaw na ange jóg na bu ñu nee nii mu nekkal ko ca. Hmm? est-ce que. lii mooñ mooñ ñu dal ñun les veuves yu bari ñenn ñi la plupart ay femmes yu nekk dans la rue dof boo seetee ba seet c'est une veuve. Hmm. soit héritage bañ ko bañ ko seetee moo jaarul yoon soit góor a jaar ca kawam xale yu góor yii les orphelins man tildu laay wax depuis combien de temps dama koy wax. héritage bu ko sa jëkkër bàyyee du pour jaww xëy na pour yow la fi mais pour pour l'avenir des enfants. Mhm. nga jël loolu jox ko jox ko góor. xale ba war a continuer ay njàngam mënut a jot ca la magasin bay fa di fayeeku mënut a jot leen mais xale bi dafay dafay rànkuñee. lii moo tax ñu ne xale yi bëggatuñu seen yaay yi sëy. te ils ont la plupart de xale yi afalans yi bañ seen yaay di seet lii moo tax parce que gis benn jomba ñaaw bu jóge fële di raj bu ñëwee ma nga lal si yaada ma nga addu ba nekk mu nga kii te c'est un grand gigolo ñun xam nañ ne xaw ci yi dañoo bari waxuma ñëpp ne ku ne ku ne ñëpp bon dem sa sa bàyyi sala bo ay tomb yoo xam ne waaw am na ci ay tomb yoo xam ne mm-hmm. faaw ñu wax ci mm-hmm. mooy yan xam nga bu bokkee ci benn association. Mm-hmm. nationale. ñëw toogal leen fi. Mm-hmm. ñoom li ñuy dund lay wax. Mm-hmm. baatu association bi la yor waaw. dañ koy nangul sens. mais dinaa ci génnee ay yenn yoo xam ne tudd nga jigéen ju génn ci sëy. toog di jàmbat. ni moom dafa wéy. xam nga loolu tudd na ko fi. parce que loolu dëggantaan. loola waral suñu borom ne ko utal wéetal. mais yàlla moo boole woon ñaar. Mhm. xëy tàqat la mhm. am na ci noo xam ne boo ko positionné. Mhm. même boo waxee ni da nga bàyyi sa bopp yàlla. loolu ci làmmiñ la yem loolu benn la. ñaareel mooy. boo waxee ni am na ci góor yoo xam ne. balaa ñuy mën a dugg ci jigéen profité. bu yor dara. d'accord. mais noonu la amee ci ay góor yoo xam ne. dinañu fekk jigéen nekk ci situation ñu dugg ci moom te jàppale ko yàlla rek tax. bari na fi am na am na. maanaam mais ana ñu. maanaam bu ñuy waxtaan. dañuy fexe gam-gamle waxtaan. la am na. comment. gam-gamle mooy niveau. maanaam bëgg défendre. waaw bi nga yor. mu tax nga jël ñëpp dugal leen ci benn. non noonu non non non. fii ma toog nii nag. yaa ngi mhm. tooguma fi ngir défendre benn góor ndax aw ma woo jël. waaw temps dafa cher. Mhm. te bu ma fi toogee di défendre damay défendre ku ma ku ma mën a défendre. waaye góor ñi su ma jéemoon ci di leen défendre li ma am ñëpp ci ci ci dund ci ñoom laa koy def te te te te du mu mu jàpp. dama ci am loo xam ne wàllu diine la. parce que euh, euh, ñaari ñaari version yu ma dégg yëpp. loolu ci wàllu jikko la mais du ci wàllu diine. xam nga lu tax parce que jigéen bi nekk ci idda Ida di tënju nga génn ci kër ay nit di la daw loolu jikko la. waaw kooku du diine kooku charia dafa am lu mu bëggoon ñu ray ko ci yeneen ci mooy ay jikko te pourtant bi nga génnee ci sëy bu fekkoon jikkoo ngi jag ba léegi mbokk ki nga ki nga doon sëyal mu bàyyi la ñoom ñoo la war a taxaw ñoo la war a taxawu ñoo la war a taxaw mhm. mhm. soo amee doom ci ñoom mhm. ak boo amul doom ci ñoom parce que famille boo ci xasee dugg rek ca nga bokk famille bu la xasee boo ñëwee ci famille takk fa jabar yow mi fa takk jabar ci nga bokk. dëgg la yow mi duggee ci famille dugg ci famille yow ca nga bokk. léegi pourquoi lan mooy problème mu bu nit génnee àdduna ñoom ñi nga doon sëyal daanaka commencé laa def noonu. créer ay problème mm-hmm. loolu moo lay wane jikko ju baax amatul ci bëccëg. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu benn la ci. nee naa la kay jour dëgg bi la règlement de compte yi di commencé. ñaareel bi say dëkkandoo. am na ci ci ci xeet yi ku ci nekk façon aadam booy dund ci pénc dëgg la am na koo xam ne dañ koy tere boo génnee sa kër dajee koo xam ne jëkkëram daa tas bis boo tasee ngi moom dootoo am dara ci àdduna kooku dootul nangu dajeeg yow te loolu charia xamu ko tas non dafa gàtt dafa dëddu àdduna dafa bëgg a wax quoi am na koo xam ne mm-hmm. dañu ni ko jamono boo génnee sa kër di xëy boo dajee jigéen ju génn ci sëy wala muy tëñ la ngay wuti doo ko am kooku day daw duggaat biir kër loolu aada dëgg la te am na ci penc mi bari am na koo xam ne dañ ni ko boo génnee boo dajee ab ab géwël kii ñu ni ko tëgg kii ñu ni ko ko sant saar baa jóob wala léeg-léeg ñu ne la jigéen te dañ koy dund ci penc mi mm-hmm. wala ñu ne la jigéen rek jigéen rek ngay génn tasee jigéen rek maanaam man mm. foofu du problème bi déedéet parce que diine aada la diine li mu bëgg ñu defar ko mooy jikko buñ nga xasee defar dund ci penc mi ñëpp dinañ dund dund instant. dëgg la. comprendre mm-hmm. li euh, euh, cause yi nga xam ne moom ngeen di jooy moo ngeen di xeex. Mm-hmm. li tax ngeen di ko xeex muy ay jikko ñu yàqu. Mm-hmm. ba ñu leen génne ci penc mi te ngeen bokk ci. beneen bi mooy. pour nit daw dimbali leen. kooku du force lañ ko war a def. dafa war a nekk lu war nag. parce que li muy cause bi muy xeex nii balaa ngay xam métti tam nga bokk ci wala nga dund ko mais nit dafa war a ñëw dimbali ma force kooku charia digal ko kenn mhm. alors man je pense que loolu ñuy xeex ñoom plus mon côté en général héritage bi souvent mooy poser problème fii ci ci ci ci suñu réew dafa am bu ma soxal mooy ban bu ma bëgg ñëw mhm. te moom la daanelee mhm. mooy ci héritage justement foofu laa bëggee nag ñu dugg parce que question la boo xam ne pinc mi fi mu toll ni tembe tembe mm-hmm. sëdd sëddaleetuñu ko ni ko charia a mm-hmm. ay cër dañuy séddale mm-hmm. te mooy sël xam-xam boo xam ne yonent bi waxoon na ne dañ ko war a jàng jàngal ko nit ñi bu ñu ko defal dinañ toll ci jamono boo xam ne nit dina fa ak ñu gis bu mën koo ko mën a miiras. fii may waxee yow ak yow tembe bu nit génnee àdduna am na ko xel daj. ne moom la ñu bëgg mu miiras ko. te kooku du mooy ki ko war a miiras ndax kooku séddal la. oustaz balaa may dugg ak yow nga wax ñun nan la ñuy miirasee. ñun lu ñu gën a tënk mooy wàllum justice ci wàllum héritage. Mhm. Euh, est-ce que mën nga ñu ñëwal foofu tuuti Aïda. mooy d' accord tey jii damay wax ni bu dee veuvage. Mhm. mën naa tank tënk ne na juridiquement ci netti ponk. Mhm. benn bi muy succession bi. Mhm. muy ndono bi ak héritage bi. waaw beneen bi muy euh, viol ak harcèlement yi nga xam ne amaana. ku jigéen ki nga xam ne mooy veuve bi wala njabootam mënuñ ko dund ci biir kër gi. bi ci des mooy wàllu euh, pension alimentaire. exact su ma tàmbalee ci viol bi. Mhm. mooy maman wi lu mu wax sànq. dangay ñàkk sa borom kër am njaboot bu toll ci diggu doom sëy nit jógee fële ak ay intention yu mauvaise dugg ci mhm. famille bi. Mhm. ne yow la denc si. waaye gis nañ ci ay cas de yu bari yoo xam ne bàyyi jiit yi ñoo leen ko def. ñu nekk ci kër gi. di violer xale yu jigéen yi moo xam ndaw ak mag ku mën a wax ak ku mënul. gis nañ ci benn situation de viol boo xam ne kooku yaayam xam na ko. mais daf ko noppiwaay. waaye daf ko noppiwaay. am ñoo xam ne yaay yi xamuñu ko. donc recensé nañ ay cas de viol yu bari yoo xam ne juddoo na ci. Mm-hmm. situation de famille bu ñu recomposer après le mm-hmm. donc loolu mooy juridiquement un problème boo xam ne ñu ngi koy xeex ñi nga xam ne xeex ci wàllu criminalité viol. Mm-hmm. ak ci wàllu sàmm jigéen. ak ak xale bi ci topp mooy wàllu succession héritage loolu lislaam am na nu mu ko tënkee am nu mu ko jàngalee ku jigéen ki ñaata lay am góor ñaar jigéen benn ndax wàllu meen ñaata mu ñooy am ñii duñu am ñi mu bokkal géño wàllu bàyyi ñi ñooy am ñii duñu am loolu l'islam jàngale na ko te yaakaar na oustaz dina ci ñëw bu ñu ñëwee ci wàllu droit juridiquement mooy ki doom bi nga xam ne sax dañ naan judduwul ci yoon sax ci buum dafa wax doom kooku la ñuy wax un héritier légataire. Mm-hmm. mooy enfant naturel. waaw mm-hmm. kooku sax wax na am ci ndono li waaye diine da ko dàq mooy. Mm-hmm. ki nga xam ne judduwul ci boobu. mais yoon daf ko nangu. du da du doon du yoon daf ko. waaye yoon daf ko tey bu fekkee ni yow suñu succession ñu ngi ko réglé ci wàllu yoon. mën na indi ay problème ci famille bi. waaw te souvent loolu mooy problème bi. dinañ sedd koo xam ne amaana. doom jooju juddu na. ba màgg. waaw ba am soxna ami doom. Mm-hmm. ñi mu bokkal bàyyi mosuñoo xam ne mu juddoo. Mm-hmm. ndax sutura. Mm-hmm. waaye xañ na héritage mën naa tax sutura soosu. sàngee dëgg la. nit am na ba am ay doom ba am ay sët ñuy soog a xam ne du kii judduwul ci moom. te xañ na bu dul xëccoo woon bu dul xëccoo alal amul woon. loolu ci suñuy nopp ñuy féete ndaw duñ ko yem. kon dina révéler yeneeni problème yoo xamante ni day judd. bu ñu demee ci wàllu yoon kooku ñu ne day am mm-hmm. bu ñu ñëwee ci diine ñu ne kooku da am donc mën na indi ay dislocation ci biir fan yi mm-hmm. ak ay këral ci xeex ak xëccoo noonu mm-hmm. am na ci ñoo xam ne ba tey kenn miraasu leen ñii def ne dix ans ñii def na cinq ans ñii amaana sax ki ëpp doole te ëpp alal ci famille bi teg na tànkam ci alalu njaboot gi ndax ñooñu féete nañ ndaw ba amuñu ku leen xeexal amuñu ku leen taxawu xamuñu sax amaana ñu ci bëri xamuñu fan lañu war a mën a jaar ci yoon ba mbir mi ñu àtte ko ci dëgg ba noonu la ñuy tollee ci seen alal kon problème bi dafa xaw a transversal ndax day laal domaine yu bari dëgg la bu ñu ñëwee nag ci wàll pension alimentaire muy euh, ki nga xamante ne amaana doon na liggéey ndax des fois tamit ñu rencontre ay cas yoo xam ne mhm. muy góor comme jigéen mhm. bu dee da ngay liggéey dañ lay cotiser li ñuy wax IPRES ndax da ngay am benn couverture sociale mu ngi dooree tàmbalee ci caisse de sécurité sociale mhm. ci nga am doom ñu di la jox ay ndàmpaay ci nga am accident du travail ñu di la jox ay ndàmpaay mm. wala it nga feebar ñu koy wax IPM wala assurance maladie mm. bu loolu weesoo it am nga retraite muy mhm. IPRES muy mhm. fa nga xam ne muy bànkaas ba ñuy joxee as paax maanaam mhm. weer bu ne ñu am luñ la dagg ngir dencal la ko fa ndax ñëpp xam nañu retraite dafa metti ngir boo jëmee mag la nga mënoon mën a toog ko la nga doon am dootoo ko am yaay ji wax na ko sànq nee na ñoom am nañu ci laal lu matul sax ñaari junni te fi ñu toll ni saaku ceeb sax weesu na ñaari junni kon kooku nan lay dundee ak njabootam pension boobu noonu Mhm. déjà dañu ne bu dee veuve nga mhm. maanaam ku góor ki doon liggéey moo dëddu mhm. àdduna ku jigéen ki amul droit teg ci loxo lu dul amul juróom fukki at imaginel kon nga am trente cinq ans nga ñàkk sa borom kër donc say trente cinq ans ba say cinquante ans doo laal sa pension alimentaire donc faw nga am juróom fukki at wala ñu ne nga xëcculu ko maanaam nga anticiper ko. te su boobaa sax dañ ciy dagg 5 pour cent pour at boo ci wàññilu maanaam boo ci anticiper. kon mën nañoo dem ba 25 pour cent. ci wàññi ko ndax bu dee da nga ko xëcc 45 ans. Mm-hmm. donc da ngay ñàkk 5 fois 5 pour cent. bi ci des ñu ne mën nañ la ko fay bu dee ni dangaa am njaboot bu toll ci jàng te amaguñu ñaar fukki at ak benn mm-hmm. waaye ñu ne bu ñu demee ba àgg ci at boobu dañuy teewaat seen loxo ba yokku jigéen ki nga àgg ci juróom fukki at kon mooy maanaam ni diggante boobu noonu yow yaay débrouiller sa bopp ngir yar sa njaboot. dundal leen dëkkal leen. te boobu as gox am na amaana lu bëri loo xam ne mën na sa borom kër du wàccee la ak ay tout tànk. 5 ans 7 ans 12 mhm. ans 13 ans ñu toll ci scolarisation ñëpp xam nañ instruction bi mu méttiwee mhm. fourniture yi dund bi goûter bi ak yëpp ndax di ngay jógee géejawaay jàng si ba Sacré-Cœur mhm. mbaa nga jàng si ba Liberté mbaa feneen kooku noonu amul luñ ko mën a taxawoo mbaa ñu ko gungee imagine soxna si xaar bu juróom fukki atam ngir mën a laal amaana benn juróomi junni yenn saa yi sax du demee noonu ndax sa pension mi ngi dépendre ci soit point yi ngay yi lay enregistreel mm-hmm. maanaam ki ngay liggéeyal mu ngi lay cotiser ngay gagné ay point mm-hmm. wala lu mu dee dee nga am fukki at ci bërëbu liggéeyukaay mm-hmm. maanaam ñu cotiser la diiru fukki at wala nga dajale 1000 points lu mu dee dee dee. Mhm. su boobaa ngay mën a am benn pension bi ak sax ñu mën ko tudd. Mhm. kon loolu noonu su amee tey jii ne dina am benn seetaan bu ndaw bu am ci soxna yi ak njaboot gi. man par exemple orpheline laa dund naa ko. Mhm. ma nekk orpheline ndax ci kaw loolu sax orpheline yi am nañ droit laal du tolloog 20 pour cent. par rapport ak ki nga xamante ni waroon na ko jël bu doon li mu ngi dund maanaam. ku góor ki doon liggéey ba àgg ci 60 ans am dem retraite pension alimentaire bi ñu ko waxoon a fay bu dee dafa dëdd génn àdduna orphelines yi ak orphelins yi dañ ciy am 20 pour cent ba keroog ñu am ñaar fukki at ak benn mm. mais li ci gën a doy waar mooy maam Kumba dañu nekk ci Sénégal boo xam ne ñu ci bëri xamuñu yoon exact mm-hmm. xamuñu it seen yoon mm-hmm. mbaa xamuñu fu ñuy jaar ba mën caa àgg mm-hmm. man li ma ko xamal mooy parce que dama def droit. Mhm. mais sama yaay laalul pension alimentaire am ñun jëluñu ko. Mhm. parce que boobu xamuma ko. Mhm. bi ma ñëwee bi université jàng succession jàng droit laa la famille laay soog a xam ne ah sama yaay de mënoon na woon a am. ak lii ngir jàppalee ñu ko ñun ci ay doomam ak moom. te boobu ñun ñëpp ñu ngi nekk ay xale kenn amagu ci 21 na wala boog benn wala ñaar. donc mu nekk situation yoo xamante ni famille yu bëri ñu koy dund. xamuñu sax ni ñoom. donte ni en tant que veuve mënuñu laal ci alal ji waaye seeni doom yi amagul ñaar fukki ak ak benn tey jàngi ci école ba mën nañu am 20 pour mm-hmm. loolu bu doon ñu ngi koy faral di wax. di ko jaalale ay spot yu ndaw mbaa ñu di ko affice mbaa leneen. Mm-hmm. ñu wàññi tuuti mbumbaay li ak xumbaay mm-hmm. ci télé yi ak ci rajo yi ak ci bërëbu waxukaay yi ngir ñu xamal àdduna ak sénégalais yi ku ci nekk lan mooy say yoon dëkk ak fan nga mën a jaar ba mën faa àgg nit am na ci ay droit yu bëri yoo xam ne ñàkk na ko ndax ñàkk xamam. Mhm. tey maman yi nga xamante ne am nañ ay njaboot. donte ne amaguñu juróom fukki at wax na ko sànq am nañ ay catholique am nañ ay femme de douanier am nañ ay femme de gendarme et tout ñooñu su fekkee am nañu njaboot bu ñu jotagul seen. pension mën nañ amaana jëli vingt pour cent chaque doom mhm. ndax dañ ne ba ba ngay am juróomi doom ku ci ne mën na am vingt pour mhm. loolu xañ na boo ko jëlee mën naa dimbali njaboot bi mhm. ñu ne bu ko weesoo daggal leen ko pàcc pàccal leen ko ba ku ci ne nga mën cee am dara kon tey jii nii yooyu baax na ñu koy waxtaane ngir ñoom ñi nga xam ne ñi ngi koy dund ak ñu ko dundagul ndax jombul kenn dañ ko ñaanul yàlla waaye kenn muccu ci ñu mën a xam ëllëg si biir lii bu ñu dalee fan lañu ñu war a mën jaar. ba mën a am ndàmpaay walla ndimbal mu ñu oyofal yenn ndax yenn bu diis la nag. Mhm. bu diis mhm. ñu wax ko ak ñu ñàkk ko wax. Mhm. yenn bu diis la rawatina nag ci as gox. kon nañu gën a bàyyiwaat xel ñi nga xam ne ñoo ngi koy dund ngir ñu mën leen gunge teyit it wax nga ko sànq par rapport ak belle famille xeexante bi. waaw am na ci ñoo xam ne amaana xam nañ sax procédure. mais su la yàlla nattoo nga nekkoon ci mariage polygame. man aawo bi. Mhm. samay doom weesu nañ ñaar fukki ak ak benn. Mhm. aw wala aw ma certificat de mariage. yow mi nga xam ne am nga certificat de mariage mën naa laa tënk ba doo déposer. Mhm. ndax faaw nga ut li ñuy wax certificat de vie collective. ut ñooñu noonu bu fekkee dafa am da nga amoon wujju yu génn àdduna faaw nga uti ay certificat de décès ñoom. pour wane ni ñoom amatuñu ci wàll. wala bu dee am na ci ñu divorcé nga utal leen ay certificat de divorce. yow sa jëmi bopp nga ut li ñuy wax un certificat de non divorce maanaam tasoo ci say bi mm-hmm. un certificat de non remariage maanaam sëyaatoo ak un certificat de non séparation de corps mooy maanaam yéen ñaar tàqalikoo amul seen diggante mm-hmm. donte ni tas amul mm-hmm. waaw te yooyu ay këyit la yoo xam ne danga ko war am indi ko man gis naa famille boo xam ne amuñu pension alimentaire parce que kenn ci ñoom amul woon certificat de mariage du coup mu handicapé ñeneen ñëpp ba ñooñu lañ ci tool ñàkk ko ci kon soxorante boobu tamit mm-hmm. daf ciy am ku ñu mm-hmm. waxaat nit ci ñu bàyyiwaat xel que ni lépp yàlla la dëgg la ndax li leen boole woon yàlla la li leen mm-hmm. li li leen boole woon te mu jug fi tamit yàlla yàlla la dëgg la kon war nañoo mën a gunge woon te gunge famille yi ak njaboot bi ba dara bañ a ñaaw ndax yéen bi diis na trop. Mhm. te ñu mësawu leen bu baax. Mhm. alors mais dafa am beneen situation mooy les veuves sans enfants. Mhm. ñoom tamit parfois dafay nekk problème. juridiquement ban explication nga leen. bu dee ñooñu noonu pension bi rek la ñuy am droit. te bu boobaa. ma rappelé waat ko nag lu am solo ndax mhm. muy ku góor ki moom moo des soxnaam génn àdduna mhm. wala ku jigéen ki moo des borom këram génn àdduna ñoom ñaar ñëpp am nañ droit à la pension exact muy veuve bi wala veuve bi waaye ci ñoom ñaar ñëpp dañ ne ku ci nekk wax nga sëy ak ka ca des lu mu néew néew ñaari at kon maanaam nit bu sëy nit at wala at ak genn wàll mu génn àdduna du mën a am ci pension boobu noonu. Mm. kon faaw ngeen sëy lu mu néew ñaari at. bu dee ku jigéen ki ñu ne faw nga xaar ba am juróom fukki at. Mm-hmm. ngir mën ko am te li ci biir mooy que ni boo sëyaatee. ñetti weex toftal benn fan da ngay ñàkk pension parce que nekk considéré parce que considéré comme mm-hmm. ak peu importe nag at bi nga xamante ni moom nga sayaatee su fekkee da nga ñàkk sa borom kër ci 30 ans 35 ans ou 23 ans da ngay xaar ba 50 ans soog a laal xaalis boobu noonu diggante boobu ñu bàyyi la ay parental nooy def di nga jóge xëy xëyiwaat mbaa nga wuti métier. am na ci ñoo xam ne bala ñoo àgg seen kër yi 23h mi ñu métti lool. dëgg la ñu ne yow moom da ngay xaar ba juróom fukki at. mbaa bu la mbaa boo toogaatee ba sëy da ngay ñàkk lool. Mm-hmm. te ba tey moyen doom yi nga xamante ne nii waajur bu góor bi fi bàyyi ko ñu ngi dund. dëgg la dundal leen mi ngi wax. yenn saa yi nga ne ci yenn ethnie yoo xam ne comme joolaay wala li mm-hmm. ñuy wax les Sérères de Ndioudj mm-hmm. am na ay principes yu ñuy teg ñuy wax les matrilinéaires wala les patrilinéaires mm-hmm. mooy ñi nga xam ne amaana boo fa tasee njaboot gi du ñu génn kër gi yow boo bëggee nga dem wala ñu def li ñuy wax le livira mooy maanaam ñu mayaat la ci frère ki nga xam ne moom moo dëddu aadama mm-hmm. yenn saa ñu bëgg laa jox koo xamante ne nii yow bëggoo wujj fekk nga ko mu am ñetti jabar wala ñeenti jabar wala ñaar boobu je veux dire mm-hmm. wala mu màgget màgget boo xamante ne nii yow leex na leen ni kii cofeel mënul judd ci seen diggante yenn saa yi nga bañ ñu ne la kon da ngay génn mm-hmm. famille bi ba pare wan sa ginnaaw sa njaboot ginnaaw mm-hmm. bu fekkee nag yor nga koy nàmp ñu ne la da nga koy nàmpal ba mu fex te bu fexe nga indi ñu ko mm-hmm. ndax yaay mën na tàqalikoo ak njabootam mm-hmm. ndax sëyiwaat toll na noonu jigéen donc ñu ci bëri dañuy sacrifier seen vie personnelle toog ci seen njaboot ndax seen njaboot kon yooyu noonu yëpp nekk na ay margini marginalisation plutôt marginalisation jigéen ñi di dund discrimination yu jigéen ñi di dund ci ethnie yi parce que tamit dañuy waxtaane Sénégal dëgg na Sénégal yaatu yaatu parce que le sud mm-hmm. le nord le centre ak waa Tamba ni ñuy dundee bokk mm. bokkul ku nekk ak say réalité xam mm-hmm. bokkul ak li mm-hmm. waa Joolaa yi di dundee mm-hmm. pël yi ni ñu xam wala wala wala séeréer yi wala ñeneen ak ñeneen donc ci biir li diine santaane ci biir li charia teg ak diine dañ ciy jëlaale ay considération ethnique ak coutumière ñoo xamante ne nii ñoom lii la xam wala ñu ne boo fi sa borom kër wàcc bàyyee ko wàcc fi njaboot say bàjjen ñoo leen war a dundal wala say ñi nga xam ne ñoo bokk ak ñoo bu dee ñooñu amuñu ko nag njaboot boobu fi ñu fu ñu jëm tumuranke ndax ethnie boobu ñoom nee nañ lu jëm ci sa wàllum neen du ñu leen dundal mm-hmm. donte ni am nañ ko bu tombeeg ñee nag mënuñu ko kon doom yooyu dañuy tumuranke léegi bu ñu xoolee taux de de d'agression yi bëri na. Mhm. criminalité bi bëri na. déviance bi déviance bi bëri na. Mhm. violence bi bëri na. loolu yépp nag dafa bëri ay sources te yaakaar naa lii mhm. wax na cee mën a bokk. ndax su fekkee danga nekk ak sa yaay. sa borom borom këram génn àdduna muy sa wéy ju ko góor. soit ni ko yaay bi waxee sax. mu dem sa yaat ak keneen koo xam ne mu ngi ci biir kër gi ne faax occupé li gën a neex ak li gën a nooy ci kër gi. ñoom la ñuy moom la ñuy taajal ginaar. moom la ñuy waaw. kon yow mën na am sa xol ñaaw wala nakare am nu mu laaj. Mm-hmm. ba nga agressif. tu deviens agressif. Mm-hmm. tout nga génn. Mm-hmm. violenté wu alors que à la base c'était une personne calme. billaay ku posé ku amoon avenir. des fois sax nga gis ci xale yu amoon avenir. yu mënoon jàng. seen jàng yàqoo noonu. ñu daal di commencer gaz d'autant que aujourd'hui que la drogue. que l'alcool et autre chose dafa yomb. yomb na prix yomb na ni ñu koy amee xëy na ñun ñoo ko xamul. mais dangay ngay romb nit koo xam ne day màndi nga naan kii nan la def ba ak fu mu war jële jëlee doxam te ñun dañ ko daan dégg ci film yi kon aujourd'hui yooyu yëpp nekk na ay facteurs yu mën a nit ci à la violence ndax yar bi ñu leen war a yar ak uuf ak ëmb bi ñu leen war a def ci kër yi des fois nga gis maman yoo xam ne amuñu attention boobu ci seen njaboot. absolument des fois nga gis ñoo xam ne condition financière yi moo ko matalewul. Mm-hmm. des fois nga gis ñoo xam ne seeni doom nañu amee ba indi duñu ko mm-hmm. xool. Mm-hmm. dañuy gëmm seen bët. ndax xale bu jigéen bu génn guddi ñibbi si suba. waaw yëkkati fukki junni mbaa ñaar jox la te waxu la fii lay liggéey. soo dee as gox ngaa laaj sa doom. dëgg la dëgg la donc débauche yi mu ngi ci. violence bi moo ngi ci. Mhm. agression bi moo ngi ci perdition bi moo ngi ci kon yaakaar naa sujet la boo xamante ne amaana bu ñu ko réglé wey dina saafara lu bëri ci wàllu viol ci wàllu violence ci wàllu agression ci lépp. surtout bu ñu xamee seen ay droit ci ay mhm. surtout bu ñu xamee seen ay mhm. droit ndax tamit mënoo kaas dara tànk xamoo ko absolument baax na tamit. yenn organisme yi di xamal nit yi que ni am ngeen fi lii ak lii ak lii ak lii wala ñoom ñi bokk wax na bokk ci seen ay combat mhm, loolu laa ko doon bëgg laaj ñu jege IPRES à que moom ñoom bu ñu mënul dem sax IPRES jege association nationale bi ngir ñëw saytu ña nga xamante ne amaana wax nañoo mën a am pension waaw wala déet mhm. est-ce que li ay da wax yi yëpp amoon na ci tuuti xam au niveau de l'IPRES mhm. fii au Sénégal Euh, organisé nañ la première conférence sociale pour les retraités mën naa ko fa woon deuxième conférence sociale ñu def ko grand théâtre mhm. le président Macky Sall moo ko patrolé mhm. ci la ñu aligné mhm. la pension minimale des des retraités parce que ñun suñu njëkk avant que ñuy gagné ay retraité la ñu moo tax ñu am pension yu minime te xëy na tamit euh, ci nombre de point yooyu ci la ñu troisième conférence sociale à Diamniadio hmm? maa nga fa woon moo tax keroog bi ñu amee rencontre avec le président j'étais la seule oratrice keroog hmm? je lui ai dit monsieur le président et l'alignement de la pension minimale des veuves hmm? alignal nañu les retraités c'est bien bon parce que fii au Sénégal nañ ko wax nañ ko wax dee na amatul benn retraité bu fayeeku 3000 5000 6000 35000 mille bu kooroo am am nga 35000 waaw ñun pourquoi ñun ñu xam ne suñu pension jëkkër yi moom la IPRES ay ay moom moom lay defee gestion. suñu pension jëkkër yi suñu cotisation jëkkër yi dafa nekk moom la ñuy fay les retraités pourquoi ñun mënuñu ñoo mënuñoo am faveur boobu nag c'est un droit. oui. le président kat dafa xëcc kii bi woo woo le PCA na ko kat kii di mu wax ne ko attention monsieur le président moi qui vous parle je perçois moins de dix mille francs. et y en a qui perçoit de quatre mille et de cinq te da ngeen koy jëli ji. da ngeen koy dem jëli ji suuf. da ngaa def tontu gis nga ndaw kii aw jàll ma le moom moo daan wax naan poste finance poste finance boobu temps poste finance lañu daan jëli ji. na ñuy mois nga bàyyi sa sa sa boo amee cinq mille francs nga bàyyi ko fa. deux mois nga bàyyi ko fa troisième mois boo ko jëli jee mhm. xëy na mu nekk quinze mille francs nga mën ci jënd saaku ceeb. Mhm. mbaa nga fay ci courant mbaa noonu noonu lañ doon vivre mais ñun pourquoi ñun bu ñu amoon pension minimum man mi am 10 mil francs kee mooy moyen de 10 000 francs aw ma 10 000 francs kee am moyen de 5 5 francs bu ñu defal suñu pension minimale de 35000 kon dootuñu fàllate ay ay ay euh, bourse familiale ak yu mel dañuy dañuy accroché wu ci li ñu li ñu xam. parce que à l'IPRES boo si boo nekkee veuve la réversion de la pension de la veuve bu sa jëkkër doon fayeeku 50000 francs mu dee cinquante mille francs yooyu dañ koy diviser en deux benn bi presque ko benn bi bu amee ñaar ñett ñeenti jabar ñu séddoo ko lii moo tax ñun on vit ci gal ci ci galère bi la vivre. cinquante mille francs vingt mille vingt cinq yi dem fële vingt cinq mille nga war ko séddale ñetti jabar ñeenti jabar ak seen doom. mais ngeen koy kaas. revendications par rapport à. à cette situation le PCA le PCA de l'IPRES me connaît très bien parce que daf may wut dégg dina dégg li ma koy wax mais man je suis je suis pas la seule veuve Sénégal li may wax du ñu ubbi seen bunt yi nañu ubbi seen bunt yi ñu wax leen li ñu li parce que ñun kenn mënuñu kenn mënuñoo téye ah. Mm-hmm. kenn mënuñoo téye te xanaa xanaa dafa am lu ñuy jomb. loo xam ne euh, suñu dignité may ñu ko mais ñu ñu gën mën a génn ci mbedd mi ànd ak suñuy doom waaw mais nag la béy daan lekk ba sax sikki mën na ca lekk ba xëy dee ndax yàlla bàyyiwul ñoo <coughs> te ñoom ñooñu ndem ñoom ñoo am ñoo am loo xam ne rusuñu ko bañ bañuñu ko ba ñun ñii mm. ñii agoniser amul chaque mois que Dieu fait mbaa amul deux jours yoo xam ne tàggewuñu une veuve gaañu na parce que amuñu accès aux soins dentaires euh, sanitaires hôpital boo fa demee sa carte membre de veuve la dañu naan waaye posal nii le aucun ministre je vous dis aucun DG aucun maire au Sénégal euh, lu ñu recevoir le pourquoi parce que nous sommes des veuves ci njëkkër di dafa dee te bu fekkee ne on a procédure de euh, on a présent ci boobu yi dee defe nañ ne bu ñu leen bu ñu leen kii mais c'est du noonu dee du jaas mm-hmm. yàlla ku mu soxla jël la mm-hmm. mais nag mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk. <laughs> alors euh, euh, yaa wax dégg nga ni mu ko waxee. <laughs> j'ai l'impression que. Mhm. moom marginalisation bi daf koy dund. mu ko dund mu ngi koy dund parce que quand il dit ni fu ñu dem genre dañ leen di daw. Mhm. fuñ bunt bu ñu ubbi duñ parce que suñu jëkkër yi dafa dee loolu lan la ci bopp veuve pour yow. loolu li muy def si bopp veuve bi bëri déjà rek loolu mu ngi créer ay complexe. exactement mi ngi créer ay complexe si veuve bi. te wax dëgg yàlla nag Sénégal amuñu benn compassion ci pauvres nag parce que loolu ñuy dund noonu mhm. li mu leen di mën a jural conséquences yi xamoo sax bari na trop mën na leen indil ñu perdre confiance en elle déjà mhm. mën na leen indil ñuy dugg ci activité yoo xamante ni si lu yàlla xam dara mhm. mën na leen indil exil Macoumba loolu yëpp mu ngi ci biir déjà rek nga nekk ci benn dëkk ñu lay marginaliser loolu rek dafay def beneen personnalité dafay créer beneen personnalité ci yow. Mm-hmm. ndaxte ñoom ñi tey jii am na ci ñoo xamante ni si peut-être c'est un cri de cœur fi mu toog nii di wax. Mm-hmm. Mm-hmm. mais ñeneen ñi à la à sa place moom. duñu am possibilité boobu donc du coup dafa jot nag ñu taxaw seetlu xoolaat jikko yi vraiment parce que li ñuy dund métti na trop dëgg la te conséquences yi mën na impacter sax seen seen progéniture mën na impacter ba ci seen doom yi te imaginer sànq li mu wax dafa am solo aussi njaboot gi des fois li tax ñuy bañ di seen seen yaay yi di duggaat ci mariage mooy comme li mu évoqué sànq rek cas de viol yi nga ah. xam dañu ñëw pour profiter yooyu yëpp ay conséquences la en mm-hmm. yoo xamante ni si ñu mu ngi koy jànkonteel mu nekk loo xamante ni nit war nañ delloo si waat seen xel vraiment xoolaat situation bi bu baax famille aussi man je trouve que ni famille yi dañoo war a jàppale bu baax ñi nga xamante ne ñooy femme veuve parce que des fois di gis exemple yoo xamante ni si nit ki en tant que veuve bu delloo seen kër ñoom ñoo koy xatal au lieu que ñu koy jàppale ñoom ñooy commencé di ko xatal di ko beddi ba ci li ñuy wax luñ lay xoolee voilà mm-hmm. di ko xoolee bët yoo xamante ni si peut-être mën nañ ni jàmbur la waroon sax mais ci ñoom lay njëkkee alors que en temps normal ñoom ñoo leen waroon apporter benn soutien boo mm-hmm. xamante ni si de telle sorte que dinañ dinañ nekk à l'aise ci société bi daal mais da créer ay ay souci de réinsertion comme li muy wax dañ leen di ber dañuy am sax ay problème de de de de réussite mhm. dafay dafay atteindre seen chance de réussite yi parce que imagine toi benn euh, veuve nit ñi buñ ko jàppee charge mën nañ ko bañ a ci activité sociale yi mhm. te lool loolu yëpp dafay nekk loo xamante ni si Euh, société bi mu koy teg femme veuve bi mhm. injustement. man je trouve. c'est injuste. c'est injuste Mhm. ba pare des fois mhm. aussi di nga gis ñoo xamante ni si ñu ngi nekk si mbedd yi di fa dund alors que peut-être bu ñu amoon ay centre d'accueil mhm. pour veuve yi loolu yëpp mënoon na ñàkk daal man ñu bëri di nga leen gis fii ñi ngi ñi ngi tàkkalikook seen sago yoo xam ay situation yu ñu jaar la ça s'explique parce que boo jaaree ci yenn situation yu metti yi da ngay dem ba benn moment boo xamante ni si da ngay da ngay dépressif yow da ngay da ngay tàggalikook sa sago du loolu yëpp daf lay daf lay amener à ce que da ngay perdre raison ñoom bu ñu la beddee teg si dangay ngay dof naturellement mm-hmm. da ngay dof alors que bu fekkoon am na ay centre d'accueil yu ñu créé pour ñoom ñi gën leen jàppale gën leen dooleel mën nañ sax contribuer au développement du pays mm-hmm. parce que vraiment jigéen nit la jigéen nit la bu ñu leen jàppalee rek dinañ dem incha allah alors alors yaay ça fait combien nga nekk toujours depuis 2006. 2006 à aujourd'hui. góor mosul toog sama kaw lal góor mosul toog sama kaw lal tey mbar nañ ci li ñu naan góor yi bëgg ñoo sëy ma gën a ñoo sëy mais koy sëyal sa front là c'est pas écrit veuve. waaw ou mari. mais dina am loo xam ne nga jombale sa bopp parce que doom nawle la. Mm-hmm. jomb naa ko dugg di yéen ak yu mel ku jomb na ko. vraiment loolu mooy suñu suñu suñu sujet toujours bu ñuy waxtaanee. parce que tamit la nga amul woon démb mënoo ko fexe ba am. Mm. dina am nag dina am nag ay exemple yoo xam ne. xëy na da nga amoo si jëkkër nga am ko am ko ci beneen góor. Mm-hmm. boobu gënal la. Mm-hmm. mais ñun par conviction. Mm-hmm. yàlla sëy lañu sant. tey ku mu ku mu sa ku sañoon tey. dina am jëkkër yoo xam ne macha allah dina la yiir am si yërmande jox ko sa njaboot mm-hmm. mais da ko dul gis ay waay da nga ko dul gis Sénégal gi mooy loolu gigolo yi ñoo ëpp ñoo ëppale waxuma ñëpp yem dama ne ñoo ëpp bu ëpp rek am na balance voilà parce xam naa baax li may wax amul ustaas ba amul imam ba amul keneen a keneen ñëpp a ca yem. ustaas. waaw ñun ñun xëy na juddoo nga tey démb dawati. ay bu la dawati. dañ bàyyi nañ leen di marginaliser. Mm-hmm. stigmatisation bi dafa bari. dafa bari. Mm-hmm. joxoñ bi dafa bari. daf moytu gi dafa bari. te way dëgg yàlla nag fii nii os fii nii. sa yaay nekkul veuve góor ñi sax laay wax ku sa yaay nekkul veuve sa jabar nekkul veuve sa tante nekkul veuve sa rakk nekkul veuve jar <laughs> ngaa dënk la mu ngi ci kër yëpp alors oustaz sànq dama la posé benn question nga omee nga nga fàtte nga esquivé ko <laughs> ma ndax ni jigéen di ténje maanaam jigéen day ténje quatre mois dix ndax góor am na lu ko lislaam tënk ci wala lu ko lislaam wax ci bu ñàkkee ki nga xam ne moom mooy soxnaam ndax góor nga koy téñ ndax góor balaa ma ñëw ci laaj bi waaw li ñu defee si waxtu nag bëreetu balaa ñëw ci laaj bi ñëw ci maanaam ndonn balaa ma ci ñëw ci ñaar hmm. son suma ko hmm. xam nga na waxtaan bi ci ñaar rek lay dellu hmm. bi ci njëkk mooy war mu penc mi yàqu jikko moo ko waral ñaareel mooy ci nga yége nii penc mi niñ ko mooñe ci wàllu ay règlement ay charte dellu ci téere bi yàlla bi rek mooy lu dëgg la. parce que ni ñuy waxee nii yëpp. mooy diine amul ci li ngeen wax yëpp diine amul ci benn ceeb. moo tax ñu indi la pour nga indi ci cëru diine. te diine amu ci benn cër. waaw parce que ci wàllu àdduna ngeen di wax jigéen ñi dañ leen war a taxaw fii pourtant waroon nañu wax ni yàlla li mu tëral nan ngeen nan ngeen defar moom ba pare man moom maa wax leneen cadre wu cadre wu diine. moo tax ñu indi la oustaz. parce que soxna si wax na ci wàllu kër yi nga xam ni ay bàyyi jiitle ñoo fay fekk ay doomu jiitle ànd ak ñoom loolu jikko bu yàlla te loolu yëpp charia wax na waaye ci wàllu miraas bi mu ci ñëwee. exact dafa am lu ma ci ñor. Mm-hmm. mooy dafa am foo xam ne bu ñu fa taxawee dañuy wax ne diine day wax ne diwul doon te bu ñu ci wàllu. yoon justice. waaw mu ngi lay doon. ndax diine justice la la atteloo wala charia la atteloo. ah dafa am ñaari atte. waaw yoo xam ne yàlla ci boppam yonent yàlla Muhammad mi ngi yónni woon sax doyul ko ci. loolu dafa war a leer. waaw te yonent bi amul benn atte boo xam ne nekkul ni moom liy doxal atte bi jëmmam moom la yonent bi mais bi mu egsee ci miraas yàlla moo ko séddale moo ko rëdd moo ko séddale ko bi demal waxal bi ñu yónni laa ko jox ko téere bi miraas dañ ko ci wax loo mais atte la woon ko mm-hmm. yàlla moo ko rëdd atteel ko boppam kon lan moo ci yoonu ay justice maanaam fii képp koo fi dégg mu dem ci justice rek mooy man ko mhm. ba dañuy bàyyi xel ni man jullit laa. d'accord mais du veuve bi du ñu ay jullit ñoom. kese waaw c'est vrai tamit benn question la bu ñu war a mhm. ñëpp amaana ñoo topp diine. waaw xam nga ñi ay ay catholique. ñi ay musulman ñi gëmuñu dara. te yoon ñëpp waaye ñëpp yi. lépp la bi waaye ci yoon tamit ñëpp la am. mais nag gis nga bu ñuy jàngale ci diine njàngaleen diine ñi gën diine la la la concerné kooku leer mm-hmm. li ma wax dafa leer dama ni mënoo mun li wax naa ko bu baax mm-hmm. parce que ñetti points nga souligné comment bu ñuy wax ci attem diine même su fekkee ni dafa am ku jarax koo xam ni gëmul diine atte bi waa diine la concerné mm-hmm. maanaam diine di tax ñoon di la mooy. Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent des Sénégalais sont xoolal. Hmm. diine dafa da ci dul maslaha. yéen pénc mi yéen fi nekk bëgg rafetal mënu leen rafetal. d' accord léegi oustaz ñëwal parce que li ñu dese si léegi ñëwal ñu ci li nga xam ne moom la diine wax ci wàllum succession. maanaam tool bi may taxaw ma ci taxaw. waaw dafa am ay mbokki daara yu may seet. ko bëggee rek sa temps bi. ay boroomi xam-xam waaw ci liggéey ah, important waaw. parce que li may wax su fekkee ni. Mm-hmm. bokkut ak li téere yi wax. Mm-hmm. su ma fi génnee. Mm-hmm. danañ ma ci yàq. te man ñu ngi fi di défendre cause kenn. diine laay défendre cause am. absolument dama ne penc mi bi yàlla wootee ne nañu gëm yonent yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. alquran moo ñu lay waxal. lan lañ leen nit ñoo ñu lay waxal sallallahu alayhi xam nga lu tax ma indi ma indi point bi nga doon leeral nii pour ñu xam ni. Mm-hmm. héritage charia moo ko mm-hmm. jàngale. Mm-hmm. yeneen ci bi jottali ñu ko kemtalaayu li mu ñu ci mën a jottali. xam nga chaque jour ñu yëpp ni. nit dina àtte miiras ba pare ñu yóbbu tribunal. bu ñu demee nii di daan àtte ni charia waxoon ñu doon ko teg ko fee àtte. li nga xam ne ay règlement wu adduna la. Mhm. gis nga yow mi jël atte bi yóbbu ko foofu. Mhm. ëllëg ci kanamu yàlla. di ngeen ko layoo yàq ko yóbbuwoon te yàlla dina duma duma yoo xam ne yow kese ni nga jàpp ne yàlla yow doo la mhm. kooku dafa war a leer. bu waxee ñu ci war a yàlla ni ma wax. xam nga dafa wax ni doom bu jaarul ci yoon du doon. waaw kooku sharia moo wax. léegi luwaa ne doom bu jaarul ci yoon. dafay doon bu jaarul ci yoon du doon diine loolu la waaw mmh. <laughs> doom bu jaarul ci yoon. Mmh. du doon ci charia. Mmh. waaw moo tax charia balaa muy waxoon ni doon alal kenn ku nekk ñaar la waral dafa am lu mu njëkk jàngale. mooy lan mooy charte ci ndono. mooy charte yi war a am ci ndono. ba ca paree dafa jàngale. yan mooy sabab yi waral loolu ba mu ca paree dafa jàngale ni yan critère mooy nekk ci nit ba bu wóorul doon dootuñu ko boole ci ñuy doon xam nga su fekkee da ngay toog fee rek xamoo dara ci wàllu miraas dégg ñuy wax waxi miraas sariya atte atte nga ni pourtant ki doom la wala ki nangam la te fekk sariya moom wax na ni wax ba pare. te lu sariya amul discuter. moom lu ci nekk dafa am lu mu xam nga bi mu nee charte. Mhm. ñett a koy waral. Mhm. mooy ki ki ñu war a doon dee. Mhm. ki ko war a doon fi nekk. alal bi ñuy doon taxaw ñett yi faw moom. xam nga ni mën ñu koo doon te dëgg la ñaareel mooy lan moo leen di liggéey ba ngeen mën a doon nañ loolu ñetti mbir la li ci njëkk mooy sëy baa askan baa lu ñuy wax walla sëy bu wér ci sëy bi nekk tamit mënuñ gàttal ci sëy nit ci dee dañ ko doon. dëgg la parce que sëy ba ca tàmbali bi dafa am loo xam ne charia bi ko ñu ko teel xam nga nit si bu koo xam ne charia dañ ko waroo koo mu denc ko kooku hmm. koo xam ne dafa am ñeenti jabar dañ takk juróomeelu jabar. waaw léegi ci ci ci ndonn jigéen bi nga xam ne mooy veuve bi ñaata la war a am. Hmm. lan la war a am. maanaam. maanaam boo waree doon sa jëkkër yow veuve bi. non loolu dina ci ñëw seeg ma ci. oustaz dina dese si waxtu bëreetul moo tax. non <laughs> ñu kii ko. parce que li ma mën solo ci waxtaan. waaw. ñu dugal directement ci point bii ma toll. da nga a généraliser parce que nag dafa nekkul loo xam ni dañ koy cof jàll. koy moo fi génne ngeen am lu ngeen laaj. Mm-hmm. te dafa war a lett plateau waaye waxtu waa ngi tam. xam naa ko bu baax. te dañuy joxe antenne. mais dama xam ne mm-hmm. dama xam ne. dama xam ne sànq ba léegi dañuy waxtaan li ñuy waxtaan yëpp ay cause la yu delluwaat suñu penc mi te dugalum si loxol diine kon ban position la ci diine jàpp ban taxawaay la ci war a taxawee. moo tax ñu indi la oustaz ñun xam nga xam ñu dara ci diine mm-hmm. moo tax ñu indi la pour nga leeral ñu lan la diine wax ci veuve yi ñun. waaw astafurlaa a ñun ci veuve yi. waaw waaw. <laughs> am na lu may xam ne yow. Mm-hmm. dëgg la parce que yaa ngi loolu lu xas tagg la mhm. xam nga tax kenn ñaanu dugg ci sëy benn nga ciy génn wala ngay am jëkkër waaw warul nekk xas warul nekk loo xam ne parce que lu ànd ak àdduna la yàgg loo xam ne dafay dab moom voilà loolu même buñ la ko waxee aw tagg la garaaw nekkul aw xas mais dama maam dama bëggoon a ñëw ci yi nga xam ne balaa ñuy ñëw ci héritage parce que am na loo xam ne bu la leerul maam faaw da nga koy laajal waaw mais sujet bi sujet bi tey sujet bi veuve la. Ah. léegi ah. suñ ko bëggee ubbi maanaam te waxtu bi tax nañu. Ah. pour balaa waxtu bi ñuy dagg kii bi nga wax ma li nga xamante ne veuve bi lan la war am ci ndoom jëkkër. waaw léegi suñ ko doon tënk. Hmm. góor jigéen rek moo fi nekk. waaw. jëkkër ak jabar ñoom ñaar ñëpp ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari façon dormir rek la ñu am du ñaar du ñett maanaam jigéen. bu génn bu jëkkëram génnee àdduna mhm. bu jëkkëram génnee àdduna bu fekkee ni jëkkër dafa am doom doom bi moo xam ci ndaw si la bàyyi ko wala feneen moo xam mu bàyyi ko ci beneen jigéen bu bokkul rek ndaw si waaw doonte doom bi doom doom rek hmm. te doom yoon ko de mais doom bu xasee que doomu yoon dafa am koo xam ni la wax ni dafa doon ne ndax doomu yoon bu ñu ne du doon bàyyam day doon dee rek absolument. même sant yaay ji dañ ngay jox santam. kon foofu am na fu ko sariya reconnaître. waaw maanaam pénc bi dafa am lu ñu xàmmee te sariya da koo leeral. est-ce que sujet bi est-ce que sujet bi bisu Ndiaye doo ko eggali suba. parce que ustaz mii li muy wax. bàyyi ñu bàyyi ñu bàyyi ñu bàyyi ñu. waaw kon jigéen ñaari façon dong la jigéen góor ñaari façon dong la. dañ koy jox ni jàng. waaw rawatina ci matière bii ñu toog. suba daal dañ ko war a rek mu nekk diine ji. léegi. waaw un huitième. waaw ah. benn. jigéen bi doo ko am ci miiras. un huitième. mooy alal buñ ko tegee xaaj ko juróom-ñetti pàcc génne juróom-ñetteelu pàcc bi jox ko jigéen loolu nag moo xam benn jabar la moo xam ay jabar la. mais un huitième daal la ci jigéen bi am léegi bu nekkee jigéen bi nga xam ne mu ngi sëy ak jëkkëram ci at yu yàgg moom amul doom jëkkëram amul doom kan mooy moom alal jooju. ok bu dee jigéen joo xam ne dafa sëy ak góor. jëkkër ji amul amul amul benn doom moom amul benn doom. Mm. jëkkër ji du ci beneen jëkkër. oui foofu ñeenteelu ceer la yam ñu koy wax rubo. un quart. ok moom la yam alal ji boo ko tegoon. léegi su boobaa kan mooy doon lu jëkkër jooju ay mbokkam. maa ngi jël yaayam bu dee dund. Mm. ak ay frères mais est-ce que foofu tam injustice. man ku jigéen ki. Mhm. Ah, waaw mën nañ ko tuddee noonu parce que tey comme ni ma ko waxee sànq. man musulman laa jullit laa. waaye ku ci nekk fii am nga casquette boo toogee. absolument kii day waxee diine man ma waxee droit. Mhm. tey jii nii mën nañ tombé ci situation boo xam ne maman bi wax na ko sànq. Mhm. ñu dajale ay veuve yoo xam ne ci biir am na ñu ci nekkul ay jullit. comme ay catholique par exemple. mën nañu signer communauté de biens. xam nga ñooñu mën na ne comme tamit jullit bu góor day denc ku dul jullit. Mhm. imagineel bu jullit bu góor. Mhm. day denc soxna bu dul jullit. Mhm. dëgg la wala du dëgg. sariya ko tere. jullit bu góor. takk soxna bu dul jullit. bu dul jullit bu dul jullit. waaw bu dul jullit laa wax. dagan na chrétien jullit bu góor yow. nga takk chrétien loolu dagan na. dagan na dagan na dagan na. loolu dagan na bu tuub dagan na. même bu tuub dagan boobu parce que def ko fi. même bu tuub dagan na waaye waaye ci kanam. may nañu ba ci kanam. waaw même ma même ma daane ma. d'accord bu fekkee loolu dafa am. Hmm. ñoom donte ni. ñu signé monogame yi par exemple. Mm-hmm. suñu boroom dogalul njaboot seen diggante. ñu boole seen lépp di benn. waaw ñu ànd tabaxandoo kër gi. Mm-hmm. ànd jëndandoo oto bi. ànd boo booleendoo seen alal di benn. Mm-hmm. nga xëy kooku dëddu àdduna. ñu atte ko ci charia. waaw xëy na ku jigéen kooku lésé nañ ko. du dëgg. donte ni moom ci diineem xamewul noonu hmm. waaye nangu naa tënku ci diine ji mu fekk si borom kër parce que loolu réalité la bu am Aïda ñun hmm. jigéen ñi dañu tàmm nekk ak suñuy borom kër lu ñu am boole ko lu boo am boole ko ah loolu dem ba benn instant yàlla weddi amuñu doom amuñu dara man alal jooju ñu ne ma un quart laa ci moom léegi li ci des xëy na mbokk góor bi waaw ñoo koy jël loolu tamit ah, est-ce que xel war na ko xel la. waaw loolu da ngeen ko tënk ci xel. waaw parce que charia dafa tëral ay ay ay ay ay ay matières yoo xam ne dañuy maa maa déglu. Mhm. gis nga ci wàllu nii ñu nekk nii. waaw wàllu nekk. waaw mënu leen koo tënk ci xel ndax yàlla kenn du ko tënk ci xel. ah dëgg la nag. Euh, soxna si. Mm. da nga wax benn wax. Mm. da nga ne ab jullit bu góor. Mm. dana takk koo xam ni jullit bu ku ku bokkul ci biir. jullit waaw charia da koy tere donte da nga koo gis ci penc mi. alxuraan mooy wax. Ah. alxuraan dafa ne man xam nga ne ngeen di wax naan gis nañ ko fii na ko ñëpp di def. non du question de gis man boog ci liñ ma wax. waaw jullit bu góor war na mën a takk ko chrétien. waaw ma leeral ah. waaw ci kaw ngeen ay ca la parce que waxtu wi. am dafa am ku mu tuddee. waaw code ci taal. yewut fekk téere ba mu ba muy jàng mu ngi koy attewoo comme ñun jullit bi ni ngay attewoo alxuraan. déglu leen bu baax la baax. yow rek la ñuy dégg. ki mu ni dafa jullit mën a takk. Mm. mooy koo xam ne téere bi wàcce woon ci yeneen bi mu gëm. Mm. mu ngi koy appliquer ni ngay appliquer alquran li ma bay laa de. Ah. déglu alquran xam nga wax. wala tankihul musrikaati xataa ah. yumina bu leen di takk ku gëmul yàlla lu dund dafa gëm dugg ci diine. lii ab jullit mën naa takk ndax gis nañ ko metti na wax waaw man sax la koy teg. waaw ci jàkkay sax nag. mais nag ci jumaa yi bari na fi de. ku ñu ko bokkalul diine lañ wax. koo bokkalul diine waxuñu ko gëm yàlla waxuñ ko bokkalul diine lañuy wax. koo bokkalul diine. léegi ki nga bokkal diine mooy kan. ah mooy ki nga bokkalul diine. ki nga xam ne bokkoo leen diine. diine diine waa déglu xam nga Sénégal dafa yaatu te bu ñuy wax ci wàllu média dañuy wax ak ñëpp mais diine ñaar dong la te alxuraan moo wax ni benn la ñu reconnaître mais d'accord nañu ñaari diine am na ci réew mooy diine chrétienne moo fi nekk. ak diine islam kon maanaam diine moo fi nekk. mais pas que am na ay protestants aussi. d'accord na man man ci weer maanaam xam nga dafa ni ki nga bokkul diine damay laaj ki nga bokkul diine mooy kan. waaw mën nañu ne lañu ne ah. ñu ne chrétien. chrétien bi amul waa tànk kooku war ngeen di bañ a dégg. ah waaw yow donc sëñ sëñ bi nag. xam-xam bu bees waay. dinañ ko def ah. dinañ ko diffusé ñëpp di ko déglu. yaa wax lii de waaw dama ni. yaa wax lii de dama ni yaa ngi ah dama ni yaa ngi. ñun bëgg dem rek célébré nañ fi mariage benn foofu. loolu am na waaye yàlla booy dama ni. waaw mariage bi si bëri na si mariage boobu moom eh. débat bi dafa ah. gën a yàgg waaye yeggali gis. ak lu ma wax cause bi ma taxawee nii. <laughs> koo jàpp ni mën naa bokk ak man plateau bii. Hmm. invité wax ñu fii mu indi ay dalil ma indi ay dalil ba pencum yàlla ku li ma taxaw ni li ma ci jóg. d'accord continue li ma wax la. dama ne la. daganul ci diine ab jullit di denc ku dul jullit lu dul ni kooku daa gëm yàlla ba noppi. loolu sax. waa gëm nañu yàlla. yeneen ci yàlla Muhammad lañu gëmul. waaw exactement loolu la ñuy def ba tey newuñu la gëmuñu ko dañ ko toppul. <laughs> xam nga gëm ak topp bokkul. non. si ñun reconnaître nañ ne Insa. xam nga tey yàlla moo ko yónnee. waaw dégg nga du rek reconnaître nañ ko. yaa ngi défendre loo xam ne yow mi koy défendre. je le passe. waaw non garaawul. kooku ma waxi topp. Ah, ah, oh, waaw dama ni. waaw dama ni. waaw. ñun jullit. waaw ñun jullit. suñu gëmee yeneen ci yàlla Muhammad wala oustaz ñëwal si mbirum succession ñu wax loolu. ñu bàyyi débat bi non non non non loolu du débat bi du ma ko. c'est pas le débat non non. non c'est pas le débat parce que nit ñi da ngeen. non oustaz loolu beneen plateau lay nekk soo bëggee ñu def beneen ndaje boo xam ne on va parler de ça mais là. <laughs> waaye je refuse qu'on en parle. dëgg la waaw xam nga ñu ngi woon ci PAM. Hmm. jigéen la la exactement oui. ma ne la jigéen dina am un huitième. lay sabab ba nag mu am ko mooy day fekk ay doom am bu doom day dem ci umu ci su doom amul dafay dafay dafay toxu ñëw ci quatrième tiers maanaam alal bi bu ñu ko xaajee ñeenti day wàcc ci quatrième tiers bu fekkee doom amul mais doom amul mooy la xam nga nit bu faatoo exemple tey bàyyi fi papa mhm. bàyyi fi yaay mhm. bàyyi fi ay doom mhm. bàyyi fi soxna masala boobu du bokk ak su fekkoon ne dafa faatu bàyyi fii bàyyi fii jabar ak i doom mun jooyam ay pàcc pàcc pàcc ni ñuy miiraas moom mais parce que soo ne ndaw si dañ koy jox un li ci des mbokk ñu féetewoo ko kon dese ngaa comprendre li ngay jàngale lan la dëgg la mm-hmm. parce que yaay dafa am cër mm-hmm. papa dafa am cër mm-hmm. doom dafa am cër jabar dafa am cër pourtant am na leen li fi nekk ay mbokk tey boo leen dëgg amul tax dafa am ñu leen ëpp doole ci alal ji. Mm. moo tax leen fiy jël. Ah, te kenn bu jëloon ci ñi rek. dafa am kenn xam dañoo rab. ok miiras nan lay doxee. miiras mm-hmm. dafa koo xam ni bu fi nekkul kii mooy jël place uh-huh. bu fi nekkul kii mooy taxaw taxawaay moo tax bu ñuy bu ñuy wax ñuy doon ci jigéen. Mm-hmm. ci miiras boo ko tënkee juróom-ñaar la ñu. boo ko yaatalee fukk la. Mm-hmm. bu dee ci góor ñi. fukk lañu boo ko yàttalee fukk ak juróom lañu yooyu fukk ak juróom yoon ndax dañ naan alal jaay mi ñëpp ay tasu déedéet dañ naan kii bu fi nekkee ah kii dootul mën da kii bu fi nekkee léegi xool ma jox ko benn misaal waa ji daa faatu bàyyi fi papa bàyyi fi yaay bàyyi fi soxna bu ñu dee ñaar la ñu góor ak ma jox ko benn misaal bu gën a yomb mm. papa moo fi nekk yaay benn doom bu jigéen ak soxna. waaw. alal ji fii yaay ak papa juróom benneelu xaaj la ñu un sixième. si un sixième. oui. Mhm. dem jël un huitième. léegi balaa ngay wax wax ñu seen cër ci ci doom bi njëkk a ñëw. ok ndax moom jigéen la. Mhm. te alal ji lu mu bari bari mënu koo jeexal. dëgg la moom jenn wàllu alal rek la mën a jël. alal ji lu mu bari bari genn wàll la ca am bu doon góor nag bu doon góor bi góor la gis nga bu yaay jëlee wàllam papa jël waat wàllam ci un sixième ñu naan koy jël soxna jël un huitième doom bi dafay ñëw jël alal bi des lépp lépp mu ko su fekkoon ñoom ñaar ñoo fi nekk dañuy def góor ñaar jigéen benn comment léegi su fekkee doom am na ci la yaay jël un huitième su fekkee ne doom amul ci la yaay ji ñëw quatrième position léegi nag loolu day day inversé wu léeg-léeg jigéen moo njëkk génn àdduna. Mhm, si ay ah. jëkkër dafa am yenn jëkkër tam même même chose lay wax. moom dafa uute. ok ndax jëkkër ñaar la te jëkkër quatrième tiers la ci am maanaam alal ji ñeenteelu xaaj wala genn wàllu xaaj genn wàllu alal xam nga boo woo ko doole. pourquoi. boo woo ko doole. waaw pourquoi la. dama ne jëkkër. Hmm. su fekkee doomu am fi. waaw xam nga fële dama ne loolu. Hmm? xam nga ne fële yaa moomee parole. yaa moomee parole dama ne woon bu doomu amul ku jigéen ki day ñëw ci. Hmm? quatrième ci hmm? su doomu amee mu dem ci huitième. waaye tey ñu lay góoroo bu doomu amul bu doomu amul. ñëw quatrième genn wàllu alal bi jëkkër moo ko moom. sariya nag moo rëdd de. bu ñu jàpp ni kenn ku nekk mu ngi. waaw waaw moom noonu la ko neexee daal mu def. xam nga alxuraan moo ko wax ay aayaati alxuraan. léegi ñun suñuy xel dañuy jël ñu tegee nii jël li nga xam ne loolu la sariya. alxuraan nangam. Mm-hmm. parce que ñi ma bokkal plateau bi ñoo tax mais li may wax muy ay olof li ñu koy dégg. dama jàpp ne war nañu ko naan dara. léegi su fekkee ni doom daa am. ci lu jëkk bi soog a ñëw ci quatrième position maa alal bi ñu ko xaajee ñeenti xaaj benn bi jëkkër ko moom su fekkee nag doom amul comme ni nga ko waxee woon nag doom ji moo ko jur juru ko kee amee na ko ci beneen na doom am rek quatrième position bu doom amul nag fenn fenn jigéen jëkkër soo ko jël départage moo tax ñaar ñëpp ñaari position rek la am mu ñëw ci quatrième bu bu dee jëkkër quatrième wala wala wala génn d'accord léegi nga ne na doom am rek donc doom am na wàll peu importe anam bi mu ñëwee maanaam doom bi am na wàll parce que da nga ne doom am rek peu mm-hmm. importe donc doom bu anam bi ñëwee donc wàll am na foofu noonu ah. léegi kii nee na bu ñu demee ci justice ah. Aïda doon boo nga xam ne ju doowul ci yoon tey doon te nee nañ ci lislaam doom bu doowul ci yoon du doon ah. foofu nan nga mën a expliquer la mën a expliquer mi ñoo tuddee ni doom bi waa ji ki ñu koy askanalee moo ko jur sariya ne jur maanaam bu ñu nee diw nii moo ànd ak ndaw si ba doom dund ci xam nga dañ naan dañ naan diw moo jur diw baat bi baat bi laay bañ a prononcé ndax télé lañ ne xam nga dañ naan ku góor ki moo ànd ak diw doom sosu ñu ne moo ko jur xam nga ñun pénc bi loolu dañuy askanal doom bi ki ànd ak ba doom sos waaw sariya nag loolu la dàq maanaam duréer bi dox seen diggante moom la dàq parce que bu ko nangoon rek dañ naan doom bi dañ ko jox sant baay ki ñuy wax ni moo nag sariya ay kayit lay joxe moo dàq ko ngeen naan du ko mën a doon léegi ci rafetal ci rafetal ci sariya ci rafetal bu mënee ne mooy baay bi moom xam na ni doomam ji judduwul ci yoon te sariya su fekkee mu ngi dund sariya la wax parce que léegi nag Euh, lu ñuy wax naan musulman sans maanaam jullit boo xam ne du pratiquer dara ci diine moo fi am mooy bari koo xam da nga naan jullit nga mais li diine li diine di jàngale dara loo ko def moo fi nit ñi yëpp moo fi mm-hmm. léegi su fekkee ne yow yaa ngi bokk ci. dama dama dama xaw a réer foofu parce que da nga ne juste tey bu dee doom am na. ñu yàggagoo ci amin amin bi. da nga ne bu dee doom am na rek. yaay ji day taxawee un hmm. huitième ah. bu doom amul ci lay ñëwee un un car bu dee ku góor ki dafay taxawee bu doom amee day yor un quart doom donc doom bi ci boppam ah. loolu mooy am ngeen considération déjà ci doom bi xam nga bi na man bu doom amee hmm. même bu bàyyi ci jëkkër ji waaw Sanja dafa sóoraale ne ndaw si mënoon naa sëy ci beneen góor am fa beneen doom doom bu jàkk yoon looloo tax mu ne même soxna si bu amoon doom te jaarul ci yoon parce que bul fàtte ni doom jooju day doon yaayam loolu ay cause bu doom xasee am ah d'accord ok ok ku góor ci lu doom mais moom day doon te yaay ji doon na ko eh, waaw kay moom dañuy doonante mhm. ndax comprendre ngeen li ma wax maanaam doom bu juddoowul ci yoon ki koy askane la dul doom mais day doon yaay ji da koy doon comprendre nga léegi nag bu dee ci cadre waa ji lañu war a doon charia bi mu ñëwee dafa ay mbir yoo xam ne ku mu nekk ci yow doo doon comment xam nga nit dina war a doon ñëpp xam ne dafa war a doon mais boo ki mu war a doon doo ko doon. Mm-hmm. ndax dégg nga man sama doom sama doom war a doon mais sama doom yàkkamti maa doon na tax na mu rey ma dootumaa doon. dëgg benn doom jàmm. du dox doom juddoowul ci yow du dox ñaar ñoo xam dañ doon sëy sëy wér dem ba mu yàgg ku góor ci ne ko doom ji nga ëmb wala doom ji nga jur juróom xam nga day am ji wala ayas bi laa boo jigéen nekk ci sëy ba ci yàgg xëy na jikko jàpp ko jikko ju baaxul mu dem ànd ak beneen góor te mu ngi ci sëy waa ji yëg kii dafa ànd ak beneen góor mu taxaw épousé wu ne ko bii du sama doom dafa am fu leen sariya ñaar la ñu ay seede taxaw waat ci pénc mi ba ñëpp xam ni ah waa kon wax na dëgg ndax bu amul rek ndax loolu bu amul rek dañ ko war a rey ci ndax ku xas dégg alxayri boo njaaru dañ lay rey. góor yi jigéen góor yi jigéen ci xam nga moom bu fekkee njaaru woo bu fekkee sange woo mosoo dégg alxayri dañ lay caw looloo waral kon dafa am ay charte yu ñu de indi ay seere ñu jël ba charia tàqal la leen. waaw léegi xam nga jamono boobu technologie avancée la <laughs> mais léegi jamono bi technologie dafa avancé de telle sorte que tey. soo waxee juróoma kii. mun nañu naan dafa am juróom la juróom. pour pour ba léegi ni mu avancé nii. waaw ba léegi terewul problème yaa ngi am. xam nga ko tamit charia moom la. lu ñu bind lu ñu mënul changer la. lu ñu mënul changer benn yoon. waaw xam nga problème bi loolu la. Hmm. mooy yàlla dafa wax ne li ngeen li maanaam li ma wàccee ci yéen bi fekk yéen a ngi fi bàyyi mënu leen fexe ba ngeen gis ay ay problème yu ngeen dund si. ok maanaam alquran faw nga koy dund ci lépp luñ mën a ne. Hmm. parce que mooy constitution ngeen koy wax. bi nga xam ne ab jullit moom war a dellu moom fu mu hmm. mooy alquran maanaam dama doon jox misaalu li tax doom bu doom bu ci yow du doom. Hmm. ma lay jox ni mu tolloo niveau boobu. xam nga man lay wax. am na ay góor yoo xam ne tey. surtout suñu réew mi ñu toll. waaw ah. mën nañ soxor soxor boo xam ne. Hmm. xëy ne la juruma doom ji fekk leer na leen ne ñoo ko jur. Hmm. bëgg la indil yow jigéen bi problème. Hmm. waxal lu rëy lool. ngir ñaane seen don. loolu am na de. ku ñaan sa doon su dee ñaaw. d'accord léegi loolu nuñ koy def su boobaa. test ADN. te lis charia reconnaître affaire yooyu wala. reconnaître. ay ñoom test ADN ak évolution jamono fi mu toll. waaw d' accord dafa doon wax baat bu am solo l' islam du soppeeku ba mais fu mu toll. day méngoo ak jamono. Mm-hmm. ndax loolu ñu ngi koy bàyyi xel. bu mm-hmm. baax. Mm. maanaam lépp day gën si waat ci sariya li mu jàngalee mooy diini ji li mu jàngalee faaw ñu gën si waat ci. Mm-hmm. wax ji lépp dafay gën si waat ci. charia yi ñu jàngale yow ñuy julli faaw nga doon cee tënku ba pare. Mm. parce que boo nanguwul tënku ci njàngale mi kon buñ la attee loo xam ne arrangé la rek da ngay dem ci feneen fu ñu parce que problème bi ngeen am nii la ñu mooy lan doomu doomu bi ñu ne doomu juddu ci yàlla pourquoi du doom. damay doom. problème bu gën a mais charia moom bu tëralee ay mbir da maanaam dañu war a rek ne bon peu importe la situation dañu war a nangu rek dañu war a abdiquer dañu war a nangu lii lu lislaam wax loolu la ñuy doxal. mais li ma wax xanaa yow war ko ko mën a dégg. naa ko bu baax dama ko nangu dama ne jullit. waaw ah. donc damay tënku ci lii lislaam wax. Hmm. donc dama ne loolu ñun duñ ci mun dara malgré que suñuy xel day xalaat dañuy réfléchir dañ naan war woon deme nii. dinañ yàlla dinañ waaye nii nii nii mais on est ñu tënku ci. xam nga.

ma ma ma ma xam nga. yow ma ñam naa la 15 minutes. li ngeen ko bëggoon a xam mu leer leer na leen. mooy mooy jigéen bu ñu fase jigéen bu jigéen bu loolu mooy débat bi. yéen wax bi lépp loo leen si jox te pourtant am na parce que parce que loolu na nekk leneen. Mm-hmm. day yaatu mais tey sujet la moo tax ma lay jéem a tënk la du mais wax yëpp dama ko nangu. dafa am benn mais foofu rek la. dafa am benn sew sew bu xam ne léeg-léeg sax mu gàllankoor lu bari ci kër gi. Mm-hmm. maanaam jigéen dinañ ko fase. waaw jigéen dinañ ko fase. Mm-hmm. jigéen dinañ ko fase ñëpp xam ne dañ koo fase muy itaw itaw bu jeexagul jëkkëram génn àddina dafa war a doon waaw parce que idda bi jeexagul. bu jeexul lay def ndax jabar bi moom lépp loo xam ni dafa war jabar ci kër daf daf ko war a diggante moom jëkkëram doon de génn na ci sëy ba mu des kooku idda bu jeexul jëkkëram dee ci ginnaaw kooku da koy doon te léeg-léeg nga dégg ay problème yoo xam ni dañuy dañuy basé wu ci rek jëkkëram fasewuñ la idda fekk jeexagul jabar la dafa war a doon te alal ci loolu dafa war a leer. Hmm? kon daal pour mu leer nga xam mooy jigéen ñaari façon dormin dong la am ci ndox hmm? benn doom amu fi du ci jëkkër du ci moom du ci jëkkër ci beneen jabar du ci jëkkër moom ci beneen jëkkër mu doon ñeenteelu xaaju at moom jigéen bu fekkee doom am na moo ko am wala jabar jëkkër ja ko am ci beneen jigéen la bàyyi ko wala moom mu bàyyi ko ci beneen jëkkër mooy wu ci am daal lii mooy ceeb jigéen. ci miiras. ci jabar da nga wax. ndax ndax ndax jigéen yàgg na. Ah. ndax yaay ngi fi ay maam yu jigéen ngi fi ay rakk yu jigéen ngi fi. nga bokkal bàyyi yi am nañ cër ci bokk ñoo ñu paar. waaye ci wàllu jabar laa wax. waaw ñun boobu moo ñu intéressé tey. ma ñee am nañu seen paar yu bokk. mais fii il ñu def fi débat succession. Ah, il faut ñu def ko. kon nag parce que dafa yaatu. dafa yaatu mm. man. leer na nañ <laughs> leer nañu ustaas waaye ayda mhm. foofu lay ñëwaat ci jigéen bi nga xamante ne moom euh, genre exemple sëy ak jëkkëram cinquante ans mhm. amuñu doom mhm. jëkkër ji xëy na génn àdduna jëkkër ji amul doom moom amul doom juridiquement euh, juridiquement bu fekkee dañoo defoon séparation des biens ku ci nekk li nga am moom ngay jël moom ngay jël la ca des euh, ñu àttee ko ndono succession nag ñëpp xam nañ ne lislaam am na lu mu ko tënkee waaye yoon it am na lu mu ko lu mu ko tënkee loolu la ñuy wax la succession. oui muy ki nga xamante ni kan moo ci am wàll. ba ci calcul bii mu am ni dafa am ci wàllu yoon. pourcentage yëpp dëgg la. kan mooy ñëw en premier au premier degré second degré ak yëpp. Mm-hmm. ak euh, bu fekkee ni euh, ci wàllu meen la wala ci wàllu géño mm-hmm. ñan ñooy dugg ak ñan ñooy génn. Mm-hmm. ku ci nekk pourcentage yi nga ci am. bu dee doom bi juddu na ci yoon wala judduwul ci yoon. comme ni ma ko waxee sànq euh, lislaam loolu moom leer nañu ñi nga xam ne ñu ngi tënku ci wàllu diine. ko mm-hmm. doom bu judduwul ci yoon moom l'islam dàq na ko. Mm-hmm. du ko nangul donte ni nag ci suñu diine ñu ngi koy gis. Mm-hmm. ndax xañ na. suturaal bi amoon ci judduteefu ngone gone boobu màgg na xëñ na ba am njaboot ñu bañ koo sulli ba tax na ñu bañ koo wax waaye kon mën nañ ne kon miiraas bu bari jaarul yoon kon Sénégal dëgg la te comme ni ko olof di waxee ku sa miiraas tàlliwul doo tàlli kon amaana kon néew yu bëri macha allah. la yàlla xam doy na. kon nañ leen ñaanal bu baax. Hmm. kon damay fekk si waat oustaz dañuy tënkuwaat ci ci diine. dëgg la waaye bu ñu fàtte ni comme ni nga ko waxee sànq Sénégal du ay jullit rek ñoo fi nekk. am na yeneen yi diine am na yeneen ñoo xamante amaana sax gëmuñu dara. waaye ba tey ci Sénégal la ñu bokk ci justice la ñu bokk. te dañ leen koy nangul. tey bu dee doom bi nga xam ne nee nañ dafa judduwul ci yoon kooku la ñuy wax un enfant légataire. mooy un enfant naturel euh, bu dee waajuram dafa génn àddina te reconnaître ko il devient un héritier légataire am na pourcentage bu ndaw mais nag du tolloole ak doom yi nga xamante ni ñoom ok juddu nañ ci yoon euh, bu dee dem nañ ba euh, ku góor ki donte ne reconnaître ko mën na ko may alalam moom la ñuy wax les dons du dans au cours du du vivant de du défunt. Mhm. maanaam nit ki nga xam ne ci sa dund. maye nga sa alal. loolu kenn du ci tegaat loxo. yaakaar ma di nit nangu na ko duñ ko boolewaat. ci li nga xam ne moom la ñuy ay conditions la. waaw pàcc pàcc waaw bañ ko defee ci sa sukuraat. <laughs> exactement bañ ko defee ci moment bi nga xam ne àndul sa xel. wala sa wér-gu-yaram na voilà loolu même même même mm-hmm. loolu la ñuy wax di condition de lesive ak yooyu noonu maanaam àndul sa sago wala sa xel wala dañ la ko maran wala dañ la noot. loolu même nit ku sukuraatul sax génnoo àdduna yi loolu kenn ko naw ak mm-hmm. action boo ci mën di teg. Mm-hmm. donc consentement ak yooyu yëpp dafa am solo. Euh, kon mën na yëkkati xam ne kii doomam la te xëy na bëgg na topp charia et que bu génnee àdduna du doon mu may ko defal ko ay doom dëgg la donc bindal ko ci kayit defar defar testament léegi oustaz tey jullit bi nga xamante ne amaana hmm. nekk na jullit ba noppi waaye bind testament nag jox ko notaire bi ndax lislaam tax ndax am na fi am na fi ay hommes d'affaires ay personnes nga xam ne ragal nañu que bu ñu du dëddoo àdduna seen alal bu ñu ko séddalee ñu bàyyi coow loo xam ne duñ ko mën a tekke mm-hmm. ñu def seen testament mën na tënku ci charia foofu bi mooy ndax charia nangu na testament testament nga sa giiru dund mm-hmm. nga ni man lii laa am ci alal mm-hmm. am naa kër am naa terrain am naa oto am naa nangam ci alal nii laa ko séddalee lée sama bopp testament sax dinañ ci gis yoo xam ne dañ leen ci génne ndax l'islam nangu na testament waaw jamono bi ngay dund ànd ak sa xel bu ko defee ñu tëj émission bi mi di bi ngay dund mm. <laughs> ànd ak sa xel waaw sa alal su la neexee nga def ko bàcc mën naa nekk waaye boo xasee tollu ci feebar moo xam feebar boo yaakaar da ngay dem bëgg sax la mooy da ngay dee wala yaakaaroo ko ci bu mu ci mën a doon charia bi la koy tere hmm. li ko waral mooy hmm. day wax ni ñàkkul ni am na ci njaboot ci wala ci ñu war a doon ñoo xam da nga leen iñaane doona moo tax amatoo droit fasa jabar boo xasee ñu détecté la benn feebar si boo xasee tëdd feebar non avant ngay tëdd parce que tey mun nga dem hôpital ñu gis benn feebar ci yow. nga yaakaar ne feebar bi feebar bi bu lay yóbbu la. moo tax sariya que dafa wax boo feebaroon tey sa jabar donte fase bi tabbi ndaw sa jabar boo deewee ci feebar nga lu ko waral ndax day bañ mu ne gannaaw kon da ngaa ñaane woon ndaw si doon la moo tax nga fase ci biir feebar bi. waaye su fekkee da feebar fase ko. mu dem yàlla nattu la deewoo ci feebar bi ah bu aide ji jeexee mu dëgg la dal. bi jot na def nañu sa nga doxe mm-hmm. tàggoo benn yoon te xam ne di nga ñëwaat parce que lii débat bu am solo la il cee waxtaan maam fi mu toll nii suñu réew bi débat débat boo xam ne ni mu déroulé naa cee gis sama bopp. ah kay ah, du man de du man de man de ma laa wax. oustaz nag plateau bi il mu leer dama invité. dëgg yàlla invité juriste xaaral yaay may ma. Ah. oustaz damaa invité oustaz. Ah. invité juriste. invité sociologue mais nit boo xam ne boobu la man may journaliste ah. mhm. donc nag débat bi tënkuwul ci mbirum diine kese ah, ku ci nekk ak sa wàll mhm. ma lay jox sa wàccuwaay di ko joxee juriste bi wàccuwaay ku nekk nag soo jëlee da ngay défendre li nga xam ne moom la fi indi boo ah, dinañ yàgg boobu plateau dama ko rafetlu ndax ku ci nekk dafa am cause booy defar. ku nekk ci sa xam-xam nga waxee. comprendre te ku ci nekk dafa am fànn booy waxee. exactement ku nekk ci sa xam-xam ngay waxee. dama ko comprendre carrément. Mm-hmm. mais mm. xam nga dafa am loo xam ne. ci ci wàll mi ñu nekk nii. Mm. bu leer kii seetaan dafay gën a yokk lëndëm bu leer ci moom parce que man souvent su may def émission damay topp direct bi. xam nga yow. comprendre. di inspiré waat ci ñi nga xam ni dañuy joxe ay ay ay ay laaj yoo xam ne yow laajoo ko foofu laay waxee moo tax ma ni la su ma nee man gisuma sa bopp déedéet dama bëgg ci dalal gi bëgg ci waxtaan bi cent pour cent ah, waxtaan day am contradiction nag pàcc bi ñu war a waxtaanee temps bi war am yaatu waaw mais nag on peut pas avoir trois heures de temps à la télé nag di nga ñëwaat ba tey ba tey ba tey gis nga gis nga soxna sànq dafa wax xam ne. waaw xëy dafay jàpp ni. Mm. dama koy contre mm. naa bu baax fi ngay waxee. absolument mais dafa am benn cause man bu may défendre ci wàllu diine. Mm-hmm. loolu nag du ñàkk ci débat. non nangul nañu ko ba jàppuñu foofu laay waxee. kon man noonu la ñu fi mm. mais bit nañu lool ci jotaay bi. ni mu gën a mm-hmm. macha allah. Mm-hmm. di di di di di jaajëfal. bu baax Cheikh bi nga xam ne Omar Ndoye bi nga xam ne. yàlla dogal na ci moom la ñu jaaree ñëw fi. waaw oustaz bu baax ma ziar ko bu baax waale. <laughs> di jaajëfal Fatou Ndiaye Fatou Ndiaye. nga xamante ne waaw oustaz Modou Fall moo ma boole woon ak. maman cause yi yal na yàlla dégg ko. amiin amiin amiin amiin ay yoon yoo xam ni. amiin bu ñu toogaatoon fii di waxtaan. Mm-hmm. di ngeen gis seen bopp. amiin amiin incha allah di jaajëfal bu baax. sama mbokk daal bi ma àndal seen Modou. jërëjëf oustaz di kontaan moom sama mag la sama xarit. kontaan naa loolu tey borom xam-xam su ma nee ko dugal rek. mu jóg kontaan naa man daf may neex may am ay nit yoo xam ne comme yow rek dañuy waxaat ku nekk di wax sa xalaat ak sa gëm-gëm aussi ah ak li nga xamante noonu nga gisee li ñuy waxtaanee. ay dama bàyyi la nga tàggoo. d'accord maam Koumba ñu dinañ ñëwaat de non débat di ma sa waaj suñu yaay yi nga xam ne ñoo koy yóbbu si kees bi. ba tey gis seen bopp. gis nañu ci génn mm-hmm. jàppale lu ci waay mën rek nga def ko. Mm-hmm. même sénégalais lam daay nga xam ne amaana am nañu yërmande wala mm-hmm. sama genre gi nga xam ne amaana dundoon nañ ko te ñeewantal nañ ñi nga xamante ne amaana ñoo ngi koy dund actuellement donc di leen masawaat bu baax di nuyu également ñi nga xam ne ñoom laa bokkaloon plateau bi di nuyu sama yaay euh, depuis Bambey et tout di nuyu Sénégalais yëpp di la remercier encore une fois. merci beaucoup merci Aïda macha allah saa yu ma la woowee nga jóg parfois nga def ma def ma ko <laughs> parfois nga njuy ma mooy loolu. <laughs> noonu la maître di bàyyi très souvent waaye parce que Aïda vraiment xam-xam bi macha allah leer na te ni nga koy joxee tamit. dañ koy dañ ci gisul bopp tey leer nañ suñu suñu xel yi. donc dañ lay di la jox dig daje ba beneen incha allah. yaay ah, eh, ma la nga tàggoo. waaw mooy sant yàlla di ñu si doon déglu allah di gërëm ñëpp gërëm sama ñaari présidente yi xam ne fa ma leen wax jógul jóg am association bi ku ma ci woo téléphone ma la jógal loo jóg macha allah. am na yoo xam ne dañ koy def sax vraiment yoo xam ne du seen du seen mën na mais sant yàlla bu baax. di gërëm toutes les présidentes de l' association nationale fii ba Casamance. Kolda maa ngi euh, wax Wélingara. waay Bignona ak Ziguinchor et tout euh, Tamba et tout. absolument di wax ab di gërëm aussi. Mhm. suñu conseil national des mhm. aînés. Mhm. ndax ñun nag dëgg yàlla genn wàll kii veuve yëpp ay màggat la. yàlla def ñu dugg ci benn kuréel nag conseil national des aînés. man mii ñu falma ma fa euh, commission des femmes. dëgg yàlla comme que ñun ay màgget lañu ay mag kii lañu. ñu ñu ñu dëxën ñu ñu yóbbu. di gërëm suñu président bi nekk ko Assane di gërëm ñëpp ñu fi nekk macha allah di gërëm suñu suñu donateurs yi macha allah. Mhm. ñu donateurs yi xam ne ñoom bu du woon ñoom ñoom ba tey mëq ñu suuf. waaw di leen gërëm Sophie Gueye di gërëm maam maam Diarra di gërëm encore l'honorable député Benjamin Marème Soda. noonu nañ ko temps yi sax. kooku def na dafa gaari cochon ba suñu kër. bu ne ak en tant que bu nekkee député ñu gaari cochon ba suñu dëkk déglu ñu chaque année dinañu indil donc yóbbu ñu ba direction wu Sonatel keroog ku nekk da nga dégg keroog war a jox ñu xaalis bi yàlla yàlla yàlla la yàlla fay ndax tamit nag amuñu leneen lu dul ñoom di gërëm tamit Sanu Ndiaye waa non non stress ak ñoom ameta ñoom ñëpp mu ne ameta barka démb la ñu indi démb ñu indi yéen yoo xam ne macha allah mm-hmm. dugg ci ndox mm-hmm. yal na leen yàlla fay amiin ndax yàlla daf ne ku ku teral veuve rek ma teral la ak orphelin surtout te ñun amuñu dara lu dul suñu orphelin te suñu orphelin xam ne ils sont conscients que avant que seen papa di gaañu seen yaay souffrir na que mu neex que naqari souffrir na ñoom fu mu nekk ils ont ils sont de relever le défi te yàlla ngi koy def macha allah. Hmm. merci beaucoup yaay Awa kontaanoon naa ci recevoir la ci plateau. maa la gën a kontaan maam Kumba. di di rafetlu émission bi aussi. Mm-hmm. di lancer appel bonne volonté ak ñi nga xamante ni si mooy état ñu gën taxaw ci euh, situation bi ba nga mm-hmm. xamante ni si veuve yi dinañ sentir seen bopp au sein de la société. Mm-hmm. gën leen a jox seen ak ak yelleef. de telle sorte que yenn problème yi ñuy jànkonteel nii. ñu mën euh, au moins même bu fekkente ni du leen permettre sax. ñu retrouver euh, benn vie bu stable dina leen permettre ñuy dund normalement ci biir société bi parce que ñoom tam ci société bi lañ bokk mm, exactement di gërëm suñu waa kër yëpp sama yaay sama papa ñoom ñëpp ak suñu waa kër toute la famille daal mm. macha allah merci beaucoup mm, kontaan macha allah di nga bi très souvent incha allah eh, maa ngi ba ma dëkk waaw mère Farsi waaw waa koñ <laughs> kooku moom c'est une doyenne macha allah góor la mais c'est une doyenne ak suñu benn bàjjenu gox Oumy Seck ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen macha allah ku lim da ngay juum ndax fi mu nekk nii dama lay wax de fii au Sénégal une femme sur trois est veuve. si. une femme sur trois est veuve te fi mu nekk nii les femmes mariées calvaire ga ñuy dëkk ci seen ménage. ci néegu sëy yi. ñun na ñëwee. yéen ñii amatul ñun ñii amatul dañoo ñëwee. kon yaa yaa. ci lenn lañ leen ñeewee. xam naa ci dóor yeeg. ah wax ah, ah. saaga yeeg. mu ngi noonu dañoo ensemble ñun defoon nañu ko mais ñoom fu mu nekk nii bëgg nañu a fermé la porte. dañuy fermé nag dañuy fermé pas fermé sax mais bon nañ leen bàyyi rek. xale yi dund ñu dund. alhamdulilah du la xam lu a jàll def. waaye waaye bu mu nekkoon thème am solo ah ñu fas yéene ko continuer nag incha allah fii ci biir télévision Futur Média parce que surtout li nga xam ne oustaz doon na ko xamale mu nekk lu am importance waaye. tamit ñoomoon beneen côté muy euh, côté juridique bi ay dañu woon ci ci lu am solo loolu nag di nekk souvent source de problème fii ci réew mi euh, ci mhm. wàllum succession donc il faut que ñu ñëwaat ci euh, bu baax baax baax xool li ci charia tënk ak li nga xamante ne juriste yi wala justice loolu la tënk ci wàllum succession souvent loolu mooy nekk problème yu bëri yi nga xam ne moom mooy am ci famille yi di indi ay jaxasoo di indi ay xeex di indi nit yoo xamante ne bu ñu génnee àdduna ak li léegi euh, kenn mënu leen miraas te loolu dégg nañ ne baaxul baaxul ci ki nga xam ne moom moo génn àdduna donc ñu bàyyi ci xel bu baax a baax xool nu muy gën a rafetee souvent ñu koy defee noonu foofu lay doxee man mi remercier leen remercier ñu doon teewlu li nga xam ne moom mooy euh, miroir du Sénégal demain Bijou Ndiaye dina ñëw ci plateau bi peut-être ak man peut-être euh, peut-être aussi ma dawaat <laughs> alors jox leen dig daje demain incha allah à la même heure sur la télévision Futurs Médias merci